asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ñu topp ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar di jiital ci nuyoo ak ziar yëpp nag Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom mu defal ko wér ak gudd fan ba yéen a jim am ci liggéey Sëñ Tuubaa lépp mu yeggale ko ba sumb leneen tañ fekke lépp nag waaye ñaanal ko baax sunu yaakaar jii di Serigne Cheikh Jëmm nga xam ne moo fi maam Cheikh Ibrahima Fall tey ci kaw suuf yàlla yàlla yàggal fi Serigne Cheikh Jëmm ba yéenam ak pas-pasam ci liggéeyal maam lépp mu jëf ko waaye mbokk yi leen nuyoo nag Euh, fii ci Mbàkke Bawol euh, fii ci gen koo miin sax ci Mbàkke xewar fii nga xamante ne bii tey liggéey bu rëy bu tedd bi nga xam ne eh, boobu ba léegi yéen a ngi koy déggandeem euh, fii la tey ji mooy istaatu Mbàkke bi nga xamante ne bii Serigne Mouhamadul Mountakha Mbàkke mi fi nekk Serigne Touba Cheikhul Khadim nga xamante ne bii tey moom lañ ko jëbbal Euh, muy doon alalu sëñ Touba comme ni mu koy waxee saa su nekk rek waaye mu jëlaat lépp nag teg ko ci loxol Serigne Cheikh jëmm li ko fi sëriñ bi bëggal li fi sëriñ bi bëggal sëñ Touba Cheikhul Khadim mooy ñu def fi daara waaye def fi jàkka miire ko mu wër ba li nga xamante moo fi nekkoon di terrain bu ñu doon football muy fowukaay lépp sëriñ bi dajj ko sànni wax na daal na ko sëriñ Cheikh jëmm taxawu liggéey bi miire ko defal ko fi daara tey njaboot gi yëpp nag depuis ba sëriñ bi joxe ndigal li muy altine jooju nga xam ne lañ ñëwoon ngir bi fi nekkoon mu daanu xam nga ne signal la gën a doy kéemtaan rek mooy dañ koo topp ba ca buut ba mooy fondation bi dëjj ko fas yéene ñu teg benn brique ci kaw lenn lu fi nekkoon loo xam ne moo fi waroon ñi fi nekkoon di caaxaan ak di fi fo wala mu ñu fi tooñ sans borom nga xamante ne bi naal mooy lépp loo xamante ne defoon nañ ko fi ci tooñ sans borom rek ci lu nuru ay caaxaan tey ñu jaamu yàlla lu ko kawe fii ci barab bi ndax daara ju ñuy jànge waaye def fi jàkk ji ñuy jullee waaye miire ko mu wër loolu la Baye Fall yi nag war a def fii nga xamante ne bi tey mooy stade Mbacké bi nga xam ne miin nañ ko ci mooy ñaareelu stade bu ñu toxaloon ndax xam ngeen stade bu njëkk ba mooy bii ci bunt bi nga xam romb nañ ko ci altu Daaru Salaam maa ngi fàttali ko ba may doon ko ne Serigne Saliou Mbacké lañ ko jébbaloon euh, tey Serigne Cheikh Saliou moom lay tabax jumaa nii ngay gis àddina bépp nañ ko fii nag ñu ko indi ko fii ndekete ñi ko indi fii xamuñu li Cheikh Ibra Fall na woon xam-xam na waaye xamul xamul fii la Serigne Touba gënee jamono baax ñëpp fii lañ tëdd barab Mamor Diarra ngi nii Mbàkke Xewar a ngi nii li wër fii yëpp xam ngeen ne fii cosaan la ci yoonu murit ndax sëñ Touba Seexul Xaddim yàgg na fi Seex Ibra Fall yàgg na fi def nañ fi ab diir bañ jógee Mbàkke Kajoor fii lañ toxu si jógee fii dem Daaru Salaam sëñ Touba tudde ko kërug jàmm gi ba dem sanca Touba fi cosaan la ci yoonu murit tey xamuñu ñu ñëw def fi stade di fi caaxaan di fi fo waxtu yu masaan a jot jaar naa fi ba tey lamb yi course yi caaxaan yi football bi basket bi lépp fi nga koy fekk muy caaxaan di fi day fees dal foofu sànn mbatt mu takk waaye gis nga tey jii xoolal la fi newoon démb ak li fi ne tey nga xam ne sëñ Muntaxa kenn xamul lu mu doon sëñ Aliou Batara lii daal mooy li nga xamante ni bi tey moo tax seen télévision Lamp Fall ñëwoon ngir nemmiku leen eh, ma ànd ak sëñ Aliou Batara sama jëwri xam dama koy bàyyee kàddu gi su ko defee moom eh, mu daal di eh, tënk lenn li nga xamante bokk na ci li ñu fi indi tey ngir won murit yi ci àddina bépp lan la Cheikh Mouhamadou Muntaxa sant Serigne Cheikh jëmm fii xamante ni bii fi lañ daan caaxaane fii ci Mbàkke te waru fee am ndax Mbàkke Cheikh Rafal la la jëm waaye mbakk lañ koy séddalee ma bëgg bu ñu ko séddalee sédd ma san wàll ku ne xam na ne boo doxee tuuti jot ay pàkkam si ñaari jërëjëf euh, Serigne Mamadou Ndaw Baye Fall asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax waaye tàmbalee si nuyoo boobu ak ziar bi si ni ko Serigne Mamadou Ndaw waxee Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir ku jara ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér na ko fi sunu borom yàggal lool te mu waaye jëwriñam bu tedd bi di Serigne Cheikh Jëmb Fall nga xamante ni euh, moom dégluwul lu dul bëgguk Cheikh Mouhamadou Mountakha ba daal di koy taxawoo ni ko sëriñ bi bëggee moom it yàlla na ko fi sunu borom yàggal lool te mu ànd ak wér ak mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi beral nuyo ak ziar Serigne Cheikh Ngounda Fall mii sunu yaakaar tey ëllëg sunu borom yàggal ko fi lool te man dëkk wér nga xamante ni moom ba ndigal li jugee maanaam boobu ba léegi toogul moo njaboot gépp rek ngir taxaw liggéeyu Serigne Cheikh Fall jëmb gii nga xamante ni si Serigne Touba Khadim Rasoul la jógee sëñ Mamoud ni nga ko waxee kon fii ab stade la woon Cheikh Mouhamadoul Mountakha nga xamante ni lépp daje na si loxo macha allah yàlla na yàgg lool te ànd daal di ni barab bii kat nañ ko jox Serigne Touba Khadim xamna ni inshallah allah dinañ and ak ñi nga xam ndax lool amna fu mu wara jaar mooy autorité locale yi di ki nga xamantene mo yor sañ-sañu dogal bi ci walu nguur ku melni ni mairie bi monsieur le maire euh, Serigne Abdou mbake Ndaw ñakul ni dina feñ ci bir reportage bi serigne Mamour am lu mu si joué waaye Serigne Cheikh Fall jëmb mi ba ndigal li roté ndax Cheikh mamadou muntaha bam ne fii dama bëgg ñu jox ko Serigne Touba ca lolé li ma fa bëgg euh, euh, mam Cheikh Ibrahima Fall rek mom moma ci doy. xam ngeen ni ba ndigal li rotee Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadr la yónni mu ànd ak Serigne Cheikh Abdou Latif ak ñenn ñi ñu àndal si délégation boobu bañ demee wax ko Serigne Cheikh jëmb sëñ Mamour li gën a yéeme mu njëkk a def mooy waajal addiya ngir sante ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir ci ndigal lii nga xamante ni jox nañ ko ko yaakaar naa niñ ko xamee muy ñaar fukki million ak jumtuwaay yi nga xamante ni moom la àndal ngir nag daal di fobu ànd ak mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi bàyyiwul benn buntu kër ñu ñëw nag fas yéene jëfe ndigal gi niñ ko tàmbalee mooy ni ngeen koy gisee ci image yi ñëw song muru clôture mur de clôture sat bi daaneel ko dijjati ko ba ma sëñ Mamour dijjatiwaale euh, fondation bi mooy ni nga ko waxee waaye di amuñu foofu tribune officielle bi wala tribune bi nga xam fa lañ daan toog di seetaan yiñ fi daan def mooy football bi ni nga ko waxee di course bi di yeneen yi fi daan xew yëpp tribune boobu nga xamante ni ni ngeen ko gisee mbokk yi yemuñu si daaneel ko ba noppi waaye dañ koy toj ba manam eh, bo fi rombe da ngay iska fi est ce amna lu fi amone seigne Mamour loolu nak di liggéey bu sel bu passif bo xamanteni ni njabootuk maam Cheikh ibrahim Fall gi ñu ngi koy liggéey fi eh, si ndigalu Serigne Cheikh Fall jëmb eh, yalla na fi yag te and ak wër and ak jëwriñam yu mu koy andal ni ma ko tuddé sank Serigne Bassirou Fall alquran ak wa kërëm Serigne Cheikh Ngunda Fall ak wa kërëm sëriñ wa kër sëñ mouraminte Aminta fallum Falloum mouraminte ñakul ni dinañ am seeni i ci waxtaan wi sëñ Moussa Fall Mbar mi njëwriñam ak mboolem njaboot gi waa kër sëñ sëñ sëñ waa kër sëñ Abdou Sakor waa kër Chérif Hassane sëñ sëñ sëñ Amdi Khadi bàyyiwuñ kenn buntu këri Cheikh yëpp ñëw wuyu si si liggéey bu rëy bii nga xamante ni dañ koy liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul ci barab bi kon liñ fi naal mooy mur de clôture bi ñu dindi ba nga xamante benn jeexitalu stade dootu fi amati maanaam defaat ko beneen mur bu mucc ayib waaye bu ñu noppee naal fi liñ fi naal ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha di jumaa ji nga xamante ni de jàpp nañ ni sëñ Mamour incha allah ñaar fukki fan ak juróom-ñaar euh, ci weeru kon euh, rakkaati gàmm si lay ñëw incha allahu rabbi wala yable ngir ñu daal di teg xeer wi waaye nag comme ndigal jib na sëñ Cheikh Fall jëmb nii Baye Fall yi nañu nekk kon euh, tàmbali liggéey bi li fekk geneen ndigal di rotaat te ndigal li nag moom mooy dindi li fi nekkoon woddaat ko. def fi bëggug sëriñ bi ndax bu ñu noppee si jumaa jooju li ñuy def mooy sëñ Mamour taxawal fi institut islamique bu jàngukaay waaye ay dalluwaay maanaam kër sëriñ Touba Xaadim Rasoul te Mbàkke rek war am kër sëriñ Touba Xaadim Rasoul ndax lu bëri sëriñ bi nee nañ xewee na fii si Mbàkke sëñ Mamour moom ak sunu sang ba sunu yaakaar ja tey ak ëllëg maam Cheikh Ibrahima Fall nga xamante ni nee nañ fii la jógee ànd ak moom ñu dem fee ca Daaru Salaam ba ni ñuy euh, demee euh, Touba ba ni sëñ bi demee si tukki bi kon fii daa bokk si taarix yi bokk si cosaan wi am sax lenn ci leeru sëriñ bi yoo xamante ni ñu ngi fii ni ñu ko waxee magi mag mu ngi si wet gi kon fii dafa yaakaar ne lu bari dafay xajul waaye nag mbiri sëriñ Touba moom lu si nekk ak app bu jot app bi daa jotee fii si euh, ki nga xamante mooy Cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir tax mu tabbi si yoxoom te noonu lay demee ci leneen lu mu mën di doon lu ñu séentuwul rek ndax nag mbiri sëriñ Touba moom tànki kanam rek laa am ni ñu koy waxee saa su ne kon liggéey baa ngi nii sëñ Mamour ñëw fekk fii góor jigéen mag ak ndaw ci képp koo fi gis fii am na loo xamante ni moom lay yëngu jëmale ndax soxna yi gis nga leen fi seen doole toll ak seen xam-xam fu mu toll fa lañ leen féetale tout tànk yi seen doole fi mu toll ak seen xam-xam mu toll fa lañ leen di féetale mag ñiit ku si nekk waaye fi mu ne nii fi ñu toll mooy liggéeyu maçonnerie nga xamante ni mbooleem euh, li euh, maam Cheikh Ibrahima Fall am si ñu seen xam-xam màcc si wàllu mason ñoo ngi fi jamono ji doon ay jëwriñ di saytu liggéey bi nga xamante ni ñu dul maçon ñoo leen siy jàppale ci wàllu gaze bi si wàllu mël yi mool def ay defar ay mool ci wàllu tubb suuf seeg tubb béton yi yooyu yëpp incha allah dinañ si dikk ak euh, mbokk yi waaye duñ yem foofu jëwriñ yi ku si nekk foo féete dinañ yi maanaam euh, jàngat am si yow ñaari kàddu yoo xamante ni. kàdduk jàngat lay doon ak kàdduk wax ñu liggéey bi fii nga xamante ne moom la moom la toll sëñ Mamadou Ndaw kon ñu ànd ak sunu caméraman El Hadji Fallou Syll

ay Serigne Abdou Mbacke Ndaw ni ñu ko waxee di nag surtout Serigne Touba Khadim Rasoul euh, nag dinañ dem si moom it euh, mu wax ñu lenn si nan lañ def ba mbir mi tabbi si loxoy Serigne Touba Khadim Rasoul jamono ji ko sëñ Mountakha bëggee loolu yëpp incha allah sëñ Mamour ngeen ànd ak seen émission Jazboul Mouride ñëw spécial tey si liggéey bu rëy bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha jox na ko suñu yaakaar tey ak ëllëg euh, di Serigne Cheikh Fall jëm sëñ Mamour Ndaw la euh, euh, jërëjëf sëñ Aline Badara Ndim dina jaajëfalaat bu baax ci leeral yu am solo yooyu waaye ni ko waxee rek di jaajëf bu baax El Hadj Fallou Sylla di jàmbaar moom itam di ko xam taxaw na liggéey bu baax a baax di ñaan suñu borom defal ko mucc rek waaye kon fas yéene rek xam naa ne daal di dugg nag ci mbokki taalibe yi xool ni nga xam ne ni la ñuy taxawoo liggéey bi euh, ñu ngi ci mooleur yi mooleur yi nga xamante ni ay jàmbaar lañ incha allah waaye tamit euh, ki nga ma ku mel moom ñàkkul ñu ngi koy gis la dégg rek ci soññe bu am solo bi moom tam ñëpp nag incha allah ñu fas yéene leen koo woon rek loolu mooy moo ñu tax a jóg ñu ngi ñaan yàlla nag daje ceeg tawfeexi sëriñ bi te lépp luñ ciy sàkku ñu bokk ko mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak ñun si Ndialène Badara jërë ngeen jëf kon Baye Bara loo ñu mën a indil ci liggéey bu tedd bi fii ci barab bi nga xamante ni yaakaar naa ni leneen lañ fi gënoon miin ndax ab stade la woon. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa jërëjëf Seydina Alioune ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla dafa leen ak yokk yéen ñi nga xam ni dangeen a fekk barigo ci kaw tund ñu ne bamax leen ko te ñu xam ni ku bamaxul it mu daanu waaye boo ca tegee sa loxo da ngay daal di bokk ci ñu am taggu ñëw bamax barigo bi yéen ñi jéem a jéebaane loo xam ne dañu koy liggéeyal Cheikh Ibra ci ndigalal Serigne Touba yàlla na ngeen ko yàgg def te muy seen jiglaay di ak yokko nag nag ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall barke Serigne Fallou Ah, nongi jokadu jox kaddu joxe kaddu ci ndigalal Serigne Fallilou Fall jeewriñ ci Cheikh Modou Aminta di Serigne Cheikh Ibrahima Fall ci jamono ah mu jaar ci jeewriñam Cheikh Moussa Fall Fallilou ak jëwriñi kër gi yëpp nak ngir liggey bi mom rek la Baye Fall doon tuglu na Baye Fall ab dundam moy ndigalal Serigne Touba bi dogal le bat bi ñew ci. du Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ak mboolem ñu sant Mbàkke yi ñu koy wuyoo ñoom day yàgg nañoo wax ne lépp lu ñu bëgg a liggéeyalu ci Serigne Touba Cheikh Ibra leen ci gënal moo ci gën a gaaw Serigne Saliou Mbàkke day ay jamonoy Xelkom waxoon na ci làmmiñam ni li mu bëgg xel koom waa kër Baye Cheikh Ibra ñoo ko mën a def kon waa kër Baye Cheikh Ibra am nañ dam bis bii nag bi nga xamee ni ñëw na. dañu ñëw fi daje miir yi dindi stade bi sëriñ bi joxe baat ni ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru wolof yi ci la xalifa bi war a ñëw te xer wi ñu war fee ñu war koo miire miir bu ràññi ko def it ay jàngukaay def it dëkkukaay yu ñuy jàngale def it jàkka ak leneen lu nu dab waaye loolu la ñu tuddagund loolu nag li bibin bi bindan rek mom la Baye Fall di def moy liggey jox sëriñ Touba da jangon nanu ci mbidum sëriñ bi buni waqdi awa ijëla o ma istabil basli wal xidmati mastatahta. bu fekke da nga bëgg sa aaju faju da ngay faj aajuy sëriñ bi li kat aajuy sëriñ Touba la Cheikh Ibra ko wara faj te non noy njabotok Cheikh Rafal te no bëgg sunu aaju faju ñu ne nag da ngay joxe sa alal ak sa doole ñi fi teew nag ñu ngi joxe seen alal ak seen doole mu mel ni kon ñu ngi cax ñi nga xam dañoo sori te mënuñoo teew ana nu ñu war a def fii mu ne moom oomo ko mu yóbbante mu amatul ndax tey tey tey rek ku bëggan sa te sa jëf teew fi rek di ko def soxlaas na fi lépp loo xam day jëriñe lépp luy jëriñe rek soxla nañu ko fii ci pàkk bii tey ba kera muy egg bëgg nañu fi xaalis bëgg nañ fi béton bëgg nañu fi suuf ndox mi du doy bëgg nañu fi it ñiy liggéey li ñuy war a mus ba mën a dëgër ak lépp lu mu mën a doon suukar ak kafe ak ceeb warga ba ci gerte caaf bu ñu ko bañ a indi mbaa ñu indi njëg gi ñu jox ko fi ñi ko ñi fi nekk ñu wëlbatiku di ko jëriñoo te itam murit yi waruñoo seetaan sëñ bi woote ab liggéey ñu bàyyee te sëñ bi di lambaat poosam di joxe dépense. xana murit yi war nañu mëna xamni fi dépasse war na fe dox lu ëpp Juni nit nga bëgg leen togal añ abis bu ne ta xamuloo kañ ngay kañ lay jeex xam nañu ni kon ko am dara ta man fe def dara da fe wara def dara mu wax nak mom sëriñ bi ni wote bi day bawu ci kenn julit bu mo na doon ta nga xamni ni julit nga bëgg te bëgg payuk julit woo nañ la rawati na murit nak rawatina kini mom mom Baye Fall la Baye Fall mom amutul droit korosé loxom ñewul dikk ñëwlewul lolu mom musiba la ci Baye Fall bi ko te ko ta ta ta te bëgg koo doon ki ko tudd te doonu ko sunu yoon ci mom lolu mom serigne bi bokk na ci limi wax barab bi nak me peel yi liggéey sax ku ko fi indi ñu jël ak brouet ku fi indi pik ñu jël rawatina nak béton rawatina souf ak ciment mboolem loo xam dañu koy liggéey mbaa muy jëriñ koy liggéey sëriñ bi soxla woon na ko fii ndax ñu koy jëriñoo ñoo fi ne sëriñ bi nee ma tàllal na loxoom ku dib julit rawatina murit bi Baay Faal bi dañu ko forcé sañu koo bañ ndax sëñ Moussa Fall Falilu mi kat nee na bi fajar jotee dañu ne allahu akbar Baay Faal xam ne allahu akbar li muy firi mooy yàlla ka màgg ñu dem ba yàgg ñu ne waxtu wi jot na ana luñ cee teg asalaatu xayrun min an nawmi julli day moo gën nelaw waaye taxul Baay Faal bi jóg kon Baay Faal bi kay bu fekkee ni ba ñu ne allahu akbar jógul ba ñu ne asalaatu xayrun min an nawmi jotul jógul mu dem ba jant fenk ñu woote liggéeyal Serigne Touba tam yaakaar ca lu koy jariñ bu nekkee di biddanteeka biin biinlu na seetaat boppam ak Baay Faal manqué na nañu ko bàyyi xel ba de nga lolu lolu nañu ko xam ndax Cheikh ibrahim Fall Babul muridin ñent jikko yi dar sahaba yaronte bi alayhi salaam buñu ko sété ci mom gis ko ndax Abu en Sadiq de nga dakental as-Saddiqu deugal gumu deugal yaronte bi bab buñu né Muhammad Nena, na balaa xam liñu wax dana wax na deug ba bu yonent bi waxe ci kanam mu ne ko sadaqta ya rasulullah ñi far ko tudde sadiqu aji deugal ji lu deug kan la deugal waye fekk lu lu deug mu diko ko dëggal bi mu ko deugale yalla ko deugal yonent bi wax deugal ko mom yalla dimbali ko mu deugal deugaluk yalla avec ci yak ci yonent bi alayhi salam waye deugal gogo nak xolal sire Cheikh ibrahim Fall ni mu ko jele buñu ñu seigne baba neena rek mu ne bu delu muy def lu nañ ci gaaw bu delu muy tere nañ ko bax bu dee lu muy laaj nañ ko ko jox lépp lu mu mën a doon Cheikh Ibra gëmi na ko noonu Cheikh Isa Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon sa di boo demee ci ah Seydina Aboubacar Seydina Aliyun xam-xam la ñu koy waxal ne mooy baabul ulum waaye Cheikh Ibra boo dikkee ci ni féete Serigne Touba baabul ulum la moo tax ñu di ko wax baabul muridina lan mooy baabul ulum buntub xam-xam. xam-xam munta weesu kër ya xam ni ki woote luddul yalla. boko ko ko mu man ko bolé la lamu soxla loolu xam xam and ak nit mu am rub yalla nga diko defal te ni bako dula ni li bokku ci koko moy xam-xam xam xam Cheikh ibrahim Fall nonu la toppi Serigne Touba kon xam xam Seydina Ali ñew na ci Cheikh ibrahim Fall ana kan mune ni Ousmane Affan financement bobu da ngay seetlu bi Ibra digganteem ak Serigne Touba bi ñu nee sëñ bi làqu da te ñu ni raay bii dañu koy indi Touba mu war a jóge njaareem Touba bi dañ ci indi ak ak ak bëgg a yàq ana bëgg a yàq gi moo di lan bu ñu leen koñee ci nit ñi duñu ko mën a am bu ñu leen koñee ci dat bi danañu jamuj ana lu ñu wax junni nit a koy mën a gas te ndawal la ñuy lekk tayit nak nag ben at lañu digg ak yeen fuñu yam yem fa lañu yam yem Cheikh moussa mbake wo Cheikh dem fa ni ko lo ci xam mu ne ko nangul dal di joxe juróom-ñaari téeméeri nit mom dong ñet téeméeri nit it Cheikh jël bokk ko kon Cheikh ba mëna yag na wolbeuti ku nak ni ko ndawal gi mom bayiko ak man ñuy gas di lek ndawal ñu delu ni juróom ben at ñu gas ko ci juróom ben wèr mu jógee njaarim ak ci Touba kon financement bi Cheikh Ibrahima ko def ba kon la Ousmane doon defal yonent bi Cheikh Ibra defal na ko defal na ko Serigne Touba ndax Ousmane xareb Tabuk kat métti woon na nit ñëpp jaaxaloon nañu ndax amuñu lu ñu def lu ñu lu ñu bàcc kër gi boo xam ne lu ñu yóbbu moo leen jox ay ngànnaay bàyyi fa dund rangooy ngànnaayam ànd ak ñoom ni fa mu jeexee may dolli ba xare bi jeex nii la Cheikh Ibrahima Fall def kon financement bi mu ngi doon ci Seydina Aliou mi ngi doon ci Seydina Ousmane Cheikh Ibrahima defal na ko Serigne Touba Omar bun Khattab moo ki nga xam ni boo lislaam yëkkati ko mooma te loolu dañu ko bind Sëriñ Tuubaa ni bi i tahassasa diinu la i mortafi an la o fadailu an ha kala tafkaar ci dara ji na Omar la lislaam yëkkati ko kon Omar am na ngëneel yoo xam ne xel xalaatul takk ko Omar képp dugg ci lislaam yàlla yebal Jibril keneen amu ko xamal ko ni ko foiri sina Omar mii yàlla ne mboolem asamaan yi juróom-ñaar ñëpp kontaan ñu defen ci lay mu ne ko mboolem ku ñu tànn kon ci ngay dégg ni asamaan ku ñu tànn newu fa mais suuf dañuy tànn yi ci des yées mboolem ku ñu la wax kon ñi ñu tànn bokkuñu kon loolu itam gis nga ni Cheikh Ibra def ci wàllu Seydina Umar bun Xattaab bi itaasasa diinu laay murtafi an Cheikh Ibra ko def ci Serigne Touba bi mu dikkee moo jëkk a rangaase na sëñ Seydina Omar defoon nak sëñ Touba ya yonentou bi Salam, salaam tere ko joxe ben loxo tere ko talale tank tere ko joll meru tere ko lënge Moustapha tere ko tok mom talale tank tere ko bokk mom ci ñam Omar ko tere khat adaba nasa turran bi uda wa adaw bi adhihi wa bi ismi ni ulam kon Omar yar nit ñi ba ñepp ñu ko yaru xam nañu tok fi Moustapha Cheikh ibrahim defar lolu Serigne Touba Cheikh ibrahim dikki fi Serigne Touba gar ci bakkanam banque leen loxo yi banque leen tànk yi dee leen joxe ñaare loxo dee leen sujjóot dee leen toog toogin bu jekk bu leen ko fekk ci nit te woowu leen xa ab xaj du bokk ak boroom bu dese leen nu lekk nii Cheikh Ibra ko tëral ci Serigne Touba kii mel nii nag andi fi Serigne Touba loo xam ne ku ne Serigne ngay topp boo ko topp ndawul saw toppin yàqoo kooku la ñuy liggéeyloo bi liggéey bi Serigne Touba bëgg te bu noppee dañu naan nii lañ ko bëggee woon rek kon wér na. dañoo xamul loolu lan mooy Baye Fall waaye Cheikh Ibrahima moom ko ko dégganum dof nangu ngaa dof léegi te boo amee dof bu mel ni moom da koy jël doo ko génn kër gi kon Cheikh Ibrahima dofub Serigne Touba bi nga xam ni yonent bi noonu na aksaru min ahlil jannati al bulaaw ñi nar a gën a bare jana mooy ñi ñu tuddee dof dañu fees dell ak yàlla loolu nag ñu ngi leen koy dénk yéen ñi nga xam ni yéen ay jéebaanekat yi muy Maamun Ndaw ak Alioune Badara Ndiim yéen ñi Alioune Thion yabal te ngeen ni ndaw yu farlu di ñu yaru ak seen caméraman bii alhaaji Fall Sill ñu ngi leen di gërëm te di leen cant te di leen ñaanal a ah, nun nag sunu ñaan sax dafa woyof ndax ginnaaw sëriñ bi jiitu na nun teg sunu kos rek ngir amuk bëgg akuk yéene waaye yal na leen Cheikh Ibra fayal boppam yal na leen Cheikh Ibra jàppale te nu fekk ko te tal ko a ah, loolu leen sëñ Ndiaga Gaye doon wax nag sama woy jur mu kii xalifa am moo ko ko wax loo woon ngir bëgg ñu xam ne sëñ Madou Mbodj mosut a génn Cheikh Ibra waaw ci Cheikh Ibra képp la mas di ne moo tax fu ñu koy waxee mën nañ ko faa tudd ngir mosu koo génn sëñ Madou Mbodj moomu sëñ Abdou Say mii nag moo dem xalifaam moo tax sëñ Ndiaga Gaye yore kàddoom wax leen ni woote na ñëpp ngir ndigal sëriñ bi ne ñëpp wuy si kuy wuyoo Mbodj rek woo nañ la ci fii loo mën a am nga indi ko mbaa nga ji sa bopp ak sa doole. noonu daal la ñu wax waxoon di wax ne rek mën nañoo def seede bu ñëpp meleen ni sa baay mm-hmm. ni Cheikh Ibra Fall bëgg fii dana am dëgg la ndax Cheikh Ibra waxal boppam ne ah. sañ Modou Mbodj dey bu ñëwee sama kër ah. ba dem ah. kër gi dana bëgg njaboot gi bëgg te dana fi bàyyi dépasse bu weer loola nag defe naa ne bu ñu ko defee fii ni Cheikh Ibra Fall bëgg dana am dëgg la ndax maam Cheikh daana wax ne l'islam bu doonub kaamil la bu lëjee que sëñ ah. Modou Mbodj sa baay lañ koy lijjantee kon kooku am na lu mu doonoon fi Cheikh Ibra Fall waaye nag dafa am benn laaj moo bëggoon sëñ Bara dimbali ma ci mooy dama gis na Cheikh Ibra Fall yàgg naa am ndam waaye amati na ndam amati na ndax sama xel daa dem ca Mbàkke Kajoor tey jii la fa Cheikh Ibra Fall di liggéey moo doonoon cosaan la nga xam ne fa la yoonu murid sosoo taal boo gis mu tàkk ci yoon wi foofu lañ xemmee matt ma muy fa Cheikh Ibra fa sëñ Touba nekkoon ca wéy juram te daara ja nga xam ne booba lañ doon xamlu mm-hmm. nekk ak seen wayjur sëñ Mor Anta Sali uh-huh. ba mu dem bàyyi sëñ tubaa jiite daara ja mag ñi njëkk jaayante ci yoon wi ñëpp andoon uh-huh. ak sëñ Mor Anta Sali foofee lañ jaayantee Cheikh Ibra Fall foofee la jébbaloo ci yoon wi tey jii bërëb boobee uh-huh. ci loxol sëñ Cheikh Jëmm Fall la ne di maam Cheikh Ibrahima Fall fii itam mooy cosaan yi ndax fii sëñ Touba gënee jamono soriwul ma ngoog fii ma doon kër sëriñ bi sama borom def xëy na ñu fi nekkoon seen yàlla saytaane eh, man leen cim xel ah, ah, ah. ba tax ñu samp fi bërëbu fowukaay Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moom yeesalkat la ndax moom la mu waxoon na bu laal suuf ba tey foofu la teg loxoom mu mel ne kon eh, ñaari mbir yooyu dajee fi Cheikh Ibra Fall tey yàlla tombale ko sëñ Cheikh jëm ban yëg-yëg nga ci am mooy cosaan la woon ca Mbàkke Kajoor démb ak cosaan lii fii ci Mbàkke Bawol démb la woon na gari waaw a la woon mboo dikaat mhm. xam nga dañoo wax ni yoonu Serigne tubaa amul tànk ginnaaw mhm. tànk kanam rek la am mhm. sëñ Cheikh jëmm bi mu ne ne xalifa yàggagul waaye lii wàcc ci kawam ñu di ko def ku xam na ni lu bees lu dikk la doxiinu sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra moo mel noonu Cheikh Ibra daa waxoon ni bu ñu demee ba jëmi jamono fu sëñ Bamba samp mbër ma samp fa wet ga ñu ne tekk mu ne ah wujjeewu ma de waaye fu mu samp mbër mbër ma day am lu mu bëgg te la bëgg saa mbër koy mën a liggéey dégg nga wax jooju mm-hmm. ba jëmi jamono su fu seigne bamba samp mbeur dina fa samp mbeur ñi ne tek mo xam waxe doom adama ñi ne ki kat day ne wujje wuma de dama wax ne fu mu samp mbeur mbeur ma day am lu mu bëgg te lam bëgg sa mbeur ko man lolu motax serigne Cheikh jëmbal Lang ak serigne muntaka wara mëna def lo xamni ah, dañuy xamni ndigal lu ñi ñëwaat na te bay faali duñu delu gannaaw lu xel ba songu dañu ko daan lu ko waral sëñ Moussa Saliou dani ba mu demee Luxembourg dañu ko laaj ni ko yéen seen tarixa bi xanaa danañu dem bàyyi ñu di ko wate lu tax du ngeen ko wate mu ni ko wate day day am ñu bëgg ñu bari ñuy seet kan moo ciy gañe mu ne ko am mu ne ko fee ne kenn daa bëggul kenn bëggul kon yow sax danaan du man day dem ba sañatu ko bañ mu nangu foofa waatee amu fa. loolu daal sëñ Muntaxa loolu <laughs> loolu moom feeñ sëñ Muntaxa Mbàkke. xam naa ne ba soñoon des ko yilif rek. waaw moom bi muy doon xalifa dafa daa mel ni. daa da ko gént ci nelaw. ndax xalaatu ko woon. ko wala warewul woon ni ne lii yàgg naa ko bëgg. daa wane ne moom taalibi la bëgg a doon ba kere mu fi bàyyi ko. mu far doon kilifa ak murit loolu ñàkk bëgg la. te teewul mu am ko. loolu moo waral loolu. dégg nga loolu. Baye Bara amaan naa beneen laaj. Mm-hmm. mooy fii. seytaane mm-hmm. moo fi sampoon ab drapeau mm-hmm. tey sëñ taxaat dijjati na drapeau seytaane boobu. Ah. samp fi drapeau l'islam. Ah. ban yëg-yëg nga ci am. Ah, ndax kat la fi newoon. ak lii ñu fi waaj a def wute nañ. waaw xam nga seytaane moom ñàkk a dégg sëñ Tuubaa daa waxoon ni. wala si suxlun siwal mu'araba li kulli abidin bi mu jaana ba mhm. seytaane amul ci soxla kenn ku dul kii fas yéenee def lu baax boo gisee sëriñ Touba cosaanoo fii mhm. way juróom dëkk fii mu ganee fi jamono mhm. ñëwal bëti ko di di tal mbirum seytaane seytaane moomee moo xam ne lislaam a ngi fi mu bëgg fee tuur ndoxam léegi nag sëriñ bi ne man saab dóor du teggi ko ginnaaw moom defe nañ dafiy ne ma dóor comme ndengeñ mu daal daanu ma samp fi sama mbir tek fi sama sama njaboot. ñu do ko fi defal li li li bëgg. setané mu delloo waxat ni setané ci bopam bo bëggé xex ak mom dé ko fugnu ni ñuy fugno sacc buy ñew ñun la fé lay fada fi anhu in ata mu waswisa bi sikri rabbina takun mu nang na ko nang ko jiñ ci tuddu suñu borom xolal fi dañuy boole liggéey ak tuddu yalla seytaan amul fu mu jaar sax tox taxlu dañuy boole liggéey ak tudd yàlla ak it nag si kanam tuuti teraanga yi dana gàññ ba nga defe ne noo sa fi am noonu la demee de waaw da ngay dem ba boo fekkee boo fekkee teraanga yi da nga naa ah ñii kay dañuy noos waaye boo fekke liggéey bi xam ne ñu ngi bëgg a dee am déet noonu noonu nag mooy àdduna Baay Faal moom dafa nangu li yàlla dogal liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla waaw loolu la Baye Fall fas yéene moom te moom lay def loolu tax boobu boobu yég yëg laa ci am jërëjëf euh, sëñ Mamour jërëjëf euh, Baye Bara Mbodj kon euh, mbokk yi ñu xuusaat rek si liggéey bi dem ziare yenn jëwriñ yi am si ñoom yenn kàddu incha allah mm. Baye Bara di la masawu coono bu baax te di la sant bu baax a baax nag wax dëgg yàlla si taxawaay bi si kanamu sëriñ bi noonu de noo leen sant bu baax nu itam mm. tey ñaanal yàlla ñaan yàlla ci barkeb Cheikh Fall mm. seen taxawaay gën a dëgër bu leen dara gàllankoor te lu ngeen yóotu te bëgg ko yàlla na ngeen cee jot te bu leen dara gàllankoor ci barke Cheikh Fall man daal loolu lay ñaan gudd fan wér mucc am ay xéewal na koo liggéey la Serigne Touba ak yàlla nañu ko am. Euh, jërë ngeen def mbokk yi ba tey ñoo ngi fii ci euh, fi nga xamante ni mooy stade bi niñ ko ba niñ ko xamee ñun ñëpp rek mooy fi nga xamante ni bii fi la. Euh, ku tedd ki Cheikh Mouhamadou Mountakha sant liggéey bu rëy bi Serigne Cheikh Jëm mi nga xam ne moo fi maam Cheikh Ibrahima Fall te mooy fii nga xam ni terrain football la woon mu siiwoon lool ci Mbàkke waxtu wii rek bu ma sànni jot si Moussa Sylla mi xam na ne fii ku fi sànni mbatt mu tak ndax daanaka li fi xew ci ngoon moo xam lamb moo xam course moo xam football lépp lu ñu daan def ci ay caaxaan rek ci faw fii lañ koy defee tey nag Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, jot ci jot jot ci suuf si maanaam ñu jox ko ko jox ko sëñ Touba mu ne moom day delloowaat lépp sëñ Touba mooy fii mooy cosaan li daanaka sëriñ bi yàgg na fi ci ay bokkam laataa muy sanc Daaru Salaam xam nga ne fii la jóge ci Mbàkke Bawol gannaaw bu mu jógee Mbàkke Kajoor kon fii am na histoire am na taarix armée lii ngeen di jàkkaar loolu itam xam ngeen ne ñu baax ñu bëri tëdd nañ fi euh, ci ay wàllu ay nitu yàlla fii di bërëb fowukaay yi boo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko soppi ngir fas yéene ko def daara ñu def fi jàkk waaye mu tekk ci loxol nag Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne lépp lu sëñ Tuubaa bëgg lu ne ci moom lay jaar muy sëñ Cheikh Jëm tey moo fi maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na fi yàgg te ñu ñëw ci fekk ci sëñ mu ne ñoo yor kàddu sëñ bi di soññee liggéey bi xam lu bëri itam ci liggéey bi ndax la ko te sabab maanaam ku yàgg ci dara ba mu yàgg ngay fer lool ndax yàgg gaay tax mag ñi waxoon nañu loolu loolu moo feeñ ci jëmmam ji xam lu bëri ndax am na ci loolu buñ koy naal ci kanam lay doon am na ci loolu buy sotti ci kanam lay sottee su ko defee nag ñu laaj ko eh, boobaak léegi ba mu tàmbali ba tey yaa ngi fi yaa ngi xëy yaa ngi wàcc di ànd ak kilifa yi. Hmm. lan mooy programme bi fii. ak euh, nan lañ fi doxe saa bu ñu xëyee ci la ñuy wan waxtu la ñuy xëy. Hmm. wan waxtu la ñuy wàcc. Hmm. lan la ñuy xëyee ak lan la ñuy wàcc ba kere Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñëw te xeer bi. jërëjëf sëñ Mamour ñu ngi lay nuyu jërëjëf siyaare ak euh, sa àndandoo bu baax bi Seydina Alioune ak euh, ki yor caméra bi Alaaji Falilou ñu ngi koy nuyu bu baax moom it di nuyu bokki Sénégal gépp nag waaye di nuyu bokki àdduna bépp nag euh, fu waay nekk rek ñu ngi lay nuyu te di la jottali ab siyaare euh, di la ñaanal jàmm te di sàkku ci yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel télé bi euh, ngeen ñaanal Serigne Mountakha Mbacké sunu borom yàgg ko fi lool ci defal ko ak wér waaye ñaanal ko jàmbaaram ju baax ji Serigne Cheikh Jimbu Fall mi nga fi Cheikh Fall sunu borom guddal aw fanam ci doole ak wéram waaye naka noonu nag ñu ñaanalaat yi nga ni. ñooy njabootu Cheikh Ibrahima Fall ak sopp yi nga xam ni dañoo sopp Cheikh Ibrahima Fall te yaakaar Serigne Touba te lu Cheikh Ibrahima nekk lu nekk ñu ne ca ñooy ñëpp kon ñu ngi ci biir ñaan gi sëñ Mamour mm, ñëw nga foo xam ni fu jar a ñëw la ah di gëstu si loo xam ni lu jar a gëstu la bëgg koo tasaare rek ngir yàlla jëmmi Cheikh Ibrahima Fall ba ku xamul woon xam ñi xamoon it gën a xam loolu mooy lan ni nga ko waxee ñoo ngi fii tey ci Mbacke Bawol ci ab liggéey boo xam ne dafa bàyyi koo fa mu daan bàyyi koo muy Cheikh Mouhamadul Mountakha mi toog tey jataayub Serigne Touba ñu ñaan suñu borom mu yàgg ko fi lool ci defal ko ak wér ñëw nag ci kem daan ñëw muy kan Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh jëmb ñoo ngi ñaan ci daraje maamam Cheikh Modou Cheikh Ibrahima Fall ñaan ci daraje baayam Cheikh Modou Moustapha Fall ak ñi wutu ñëpp suñu borom guddal aw fanam ca defal ko ak wér mu jot lam daan jot nag woote ñam daan woo ñan la daan woo ko koo xam ne sa yaakaar daan nekk ci Cheikh Ibrahima Fall sëñ Cheikh Jëmm jox jot na ndigal jëlee ko sëñ mu Muntaxa mu jëm ci stade bi stade nag sëñ Mamour wax nga ko fii de toll na jamono ko fi ñëw waxtu wii boo sànnee mbàtt mu tag waaye boo fekk na kenn tagul ko dul seytaane waaye tey ji bu mbàtt bi tagee ki ko tagal mooy Baay Faal rek moo tagal mbàtt bi ndax mbàtt bi du wàcc faw mu dal ci bopp wala nit capté ko la loola am nag. moy ndigal la nga xamni ni ñu Serigne Cheikh jëm ci amuñu lu dul Cheikh ibrahim Fall ñun Baye Fall serigne Mamour ma ngi déglu say waxtaan yu bare bare ñoy ñaan sa borom nak bu gën a sam xel ci doole sa kartan bu baax gëna a leeral saw làmmañ Baye Fall serigne mustapha Fall fallilu jëruñu serigne Fallu Fall moom serigne Mourowinta saa su ne mi ngi koy wax Baye Fall amul lu may ndigal Baye Fall amul julli Baye Fall amul koor Baye Fall amul natakasa Baye Fall amul ajmaka li rek mom lañ am ba bërki démb keroog altine bi nu tàmbalee ba ma xëyee man de maa ngi fi ñëw juróom-ñaari waxtu waaye bi muy egsi daanaka fekk naa miir bi jeex ma nuyoo moom am kersa waaye am geneen kilifa gu ma àndal mu daal ni ah kay du du du du ñi jiitu rek la ñi jiitu ñoo fàtte lan waxoon wala boog dañ leen ko fàttaliwul. waye ñi topé ñom wax dëgg yalla yent bi ñu ci bare bare day seen jaan wàcc na li seen jaan wàcce moy lu sëriñ bi diglé lu né no taxaw ba loolu am ndax sëriñ maawur bu da no nodd fajar nga dégg ko ni ab julit nga yaakar yalla ay yonent bi yaakar sëriñ tuba Cheikh ibrahim Fall ñu nodd fajar nga ñodd waat sa mbalaan la tax nga ñodd ko xam nga ko moy gëm Cheikh ibrahim Fall ci doyloo ko kon bo déggé batum digal na nga xamni ko woté won ci nodd ga ba nga ñodd sa mbalaan kon nag loolu la sëñ Moustapha Fall fëlilu leeral leeral ko kilifa goo xam ni wax dëgg yàlla yonent bi ba mu ko tàbbee am noppam ak tey xam naa bu fi jiituwul sëñ Moustapha it saa yu sëñ Moustapha xëy see rek da koy daal di gis loolu nag du lenn lu may xam ne nii la ab Baye Fall war a mel yaa ngi gis mbooloo mi altine leen ñëw daaneel miir bi fekk booba xel mu li ni sëñ Moustapha di wax suñ xel yi buñ ko wudd nan ko bàyyi muy dox nan ko bàyyi muy dox ji tax muy wax nag mooy dana bëgg fu ndigal jugatee ñu doxal suñuy xel xam ni lii moo war a am dana waxoon nan toj dañ fi ñëw toj miir bi gas ko ba jot dee eh, fondation bi dindi ko daaneel tibbin bii nga gisoon ci sama ginnaaw te gis nga gaay ba tey la ca dese ko néew ña ngi koy rukk noonu ngir mokk ñu dindi ko ba nee ba boori am nañu déyante ci seen biir waxtaan sëriñ si fekk sëriñ si nañ ko dana wax ne ñaar alxames di mujj ci weer wii lan war a teg xeer wi bu dindee loolu ba noppi waaye ñu ni diggante bi ñuy toog ginnaaw jotoon nañ baatam digal bu nu sëriñ bi mayee ñun taalibe yi jëlatul ñuy toog ndax lii nga gis ñu koy def muy móol bërki démb ca ngoon nañ ko tàmbali démb ci leen xëy tey ji ci leen xëy mën naa am bu ñu toogee fukki fan wala fukki fan ak juróom bala ñoo yegg ci bis bi nga xam ne ci la war a ca xeer wi sëriñ Mountakha di ñëw sëriñ Cheikh Jëmm ñëw njabootu Cheikh Rafal gépp ñëw bala ñoo yegg ci loolu lu ñu war a soxla ci ay móol lépp sottiwul lu ëpp dina sotti loolaa waral ñu far wéyal liggéey ba toog fii nag fer suuf si ñëw na xeer bi ñëw na keesi mool yi Fall Fallilu muy seigne min ci kanam mbolo mi euh, di di doxal liggey bi legi rek la mujjé waxat ak seigne Moussa ne ko ginaam mbolo mi doyenal ko te liggey bi suñu sañon ci wër lañ koy jébbal borom ndax Cheikh Rafal kat ku ne xamone na passam ku ne xamone ak dogom ku ne xamone ak bëggam waye ñi de kenn da mu dab Cheikh Rafal waye ñom ñang ci tank ya ñang ci yoon fasiyene dem rek ku leen dimbali nak ñu dem na ay caisse ngir bëgg doli liggéey bi ba nu mu gën a gaawee ndax gaaw gi rek moo gënal sëriñ bi gaaw gi nag bi mu gënal sëriñ bi noppi da cee war a boole baax day gaaw ba noppi baax loolu sëriñ bi bëgg kon liggéey bi altine leen tàmbali woon ngir toj ko waaye wéyal nañ ko nag far dañ ciy nekk ba keroog ñaan tey yii la ñuy toj la ñuy xeer bi loola nag koo xam ni yow mi barki démb nga jógee ci tukki ba ngir doxi woon ay jéego ngir lan bàyyi faal gi rek ak yoon wi sëñ Tuubaa rek ngay dox sax Moy moy moy Baye Fall gi ndax Baye Fall sering Serigne Touba ànd Seydina ali mi gàttan ji ay murit waxtaan ak ñoom ñu fab seen addiyee di leen ko jox ngeen indi fi ci Serigne bi loola nag kon Serigne bi mi ngi wax ni képp koo xam ne sa yaakaar ci Cheikh Rafal nekk lépp loo xam ne nga ko lépp loo xam ne nga ko ah soo ko mënee bàyyi na nga ko bàyyi soo ko mëntu bàyyi ko yolomal ñëw fii ba Serigne bi gis la ndax tàmbali na koo xam ab Baye Fall nga amoo du ndigal ndigal jug ni ci waay mën a bokke bari na ciment baax na suuf baax na fer baax na murid yi ku leen seen xam ni ndox mu sedd baax na ci ñoom kafe baax na ci ñoom añ baa ngi nee di doog a wàcc Serigne Cheikh Jim Fall yor ko yokk ku ñuy wax Mbay Jóob ci ndigalu sëñ Maguette Niang mi nga xam ni mooy jëriñam añ baa ngi noonu ne xam naa den fa yegg ci kanam ngeen gis ko boole kook sëriñ Fallou Fall jëriñ ji sering Bassirou Fall Al sëriñ Cheikh Cokke sëriñ sering Fall Farsaw sëriñ Cheikh Assou asunjai mboolem njabootu Cheikh Fall gi sëriñ kadi fal Fall jàmbaar ji yebal na fi ay rakkam taalibe yi ñoom ñëpp nga àndandoo di xëy si ci ndigal lii sëñ Talla Fall mu sëñ Fandar kenn manquéwul waaye nag mboolem njabootu sëñ Abdourahim mboolem njabootu sëñ sering fal sëriñ Fallilou Fatikan sering Moussa Fall Fatikan kenn desul ñëpp ngi dar dar sinsia Cheikh jëm ne ci ginnaawam ngaham yéene lii nga xam muy mu mu mu di liggéey sëñ see jëm am ci ndam na ko bàyyi mi daan amee maam mi daan ko amee magam mi baaxee daan ko amee ñu ngi koy ñaanal ndam loolu ñu ànd koog moom ba mu jaajëf ji mu ci wut ñun ñëpp ñu bokk ja déggandoo liggéey bi nag nekkul ni ñëpp mën na ñëw toog ndax am na ñoo xam ne faaw ñu dem ñëw waaye am na ñoo xam ne sëñ Mamour keroog bi ñu fi bi altine ak tey luñ génnaat ci liggéey bi li feek li feek jëf wala ñu ne baat ba ñëwoon ñëwaat na muy kaay buñu ñu ñew leen luñu ñu waxaat su boba ñu dekk ko waye liggéey bi dal mom door na te gaay duñ fi juk mukk ci li señ bi bëgg amul ñoo ngi ñaanal kon kon loolu liñ ci déggé moy euh, man ak Baye Fall la xaar ma ñëw barkeelu ab bës ci liggéey bi sama doole wala barkeelu benn jumni loolu mom du du du yëf yi Baye Fall. déedéet loolu loolu señ dosa naal yu du say wax du samay wax Cheikh Modou Fallou Fall yalla ko suñu borom doole ay leer dégg naa ci ay kàddoom wala dégg naa ci ñu mom. ci moom. ku mosaan a ñëw fekk ko ca xelkom ndax ñun mën na wax ca xelkom lan dare fa lan dale ab liggéey ku mos a ñëw fekk ko fa ni ko damaa barkeelu si mu nu barkeelu loo bokk loo bokkul ca lii da nga bokk yow li nga wax ne ab Baay Faal nga mooy dëgg sëñ Ngunda sëñ Cheikh Ngunda moom sëriñ Ngunda moom maam Serigne Fall mooy si kilifa ku ne xam na la ci yoon wi tele bi booliwul ak yoon wi tele bi daa ñëw fekk la ci yoon wi sëñ Maodo mi tele booliwu koo yoon wi télé bi daa ñëw fekk ko yoon wi ñu tuddee ko seen maam nag ngeen yaakaar Cheikh Rafal ànd ak télé bi di liggéeyal Cheikh Rafal fii amul barkeelu ku xëy si da ngaa xëy si ku am looy joxe da nga koy joxe li feeg yëggul sëñ bi kenn li feeg yëggul sëñ bi néewul laajatuma kenn kon lu waaye am te bëgg mu raw fabal fab ko jox ko sëñ see jëm mu defal la ko fii koo xam ne jumaa ji rawoon na la ngasum raay bi raw la carrière bi raw la yokku jumaa ji raw la jumaa jaa ngi nii ka joxoon loolu rek moo joxwaat lii kam ko joxoon lan ko joxaat sëñ Tuubaa ma ko woon moo ko joxwaat fii Cheikh Rafal moom ko joxwaat it moom la ko joxaat fii ndax kat kii ko wuutu sëñ Maaru mën na ko gëme ci moom sëñ see jëm mii mais naa gëme ci moom ni mooy Cheikh Rafaal ndax la ko dala ci sëñ Modou Saafaal ba ci sëñ Modou Faal mi mu wutu liggéey bi ma gën a yéem ci sëñ see jëmb mooy koor gi liggéey bi ma gën a yéem ci sëñ see jëmb mooy koor gi ndax ceeb fa mu ko fekk ak fa mu ko yóbbu ca tuugul fi mu fa mu toog la jugu fa loolu nag ngërëm yu bari dina ko waral te koo jëlee ci sëñ Modou Saafaal baayam ba ci sëñ Mouride Fall magam ju baax ji mu wut ku fi mas a toog di kilifaam rek sëñ see jëm ànd naa yow ba nga gërëm ko moo tax tey bi mu jotee lenga yi toog ci toogu bi fa mu tëdd lay tëdd ki lim bëgg dina am. kon da kon daal képp kuy werante toog muy dox yow ñëwoo ci sëñ Cheikh Jëmb. képp kuy werante toog muy dox ñëwoo ci sëriñ Cheikh Jëmb ku ñëw ci sëñ Cheikh Jëmb di nga xam ni fa mu toog la toog lépp dox maa ngi dégg ci kenn ku ko jege muy sëñ Omar Dumbuya booba maa nga ca yóbbu ndogu ba ñëw ñaan gi gaaw lool sëñ Omar laaj ko sëñ bi lu lii mënu ko lima yor dama jigé lima yor du jeex ca ca ca ca loolu soriwu ma kon ko xamni ne damay sëq jox la kon ku bëgg sa aajo faju nda aajo faju nan waye nak dafa am lo xamni ne nan ni nu dàqante nak ko xamni bëgg nga bokku ci ñuy dàqale da ngay baña tayel te baña diip te mel ni tey ngay doog a jug nan laxasuwaat fabuwaat xam xamni amaat na ndigal ndigal lu bes teq ñu ku bëgg yes ñewal ku bëgg a barile ku bëgg sét set ku bëgg wër ñëwul ku bëgg jamm ñëwul fi la jamm nek ndax fi la ndigal li ñëw seytaane ku ci bëgg mucc nak da ngay dem fam tuxo setan tuxo tuxoo na fi fii stade mais mais mais sëñ Moussa nan nga yëgé dëkk bi di yow fi nga dëkk xam nga fi lu bëri fii cosaanu yoonu murit ndax gannaaw bu sëriñ bi jógee Mbacke kadior ñëw na fi Cheikh rafal tarbiya na fi suufa ma ngi sori soriwul dara am fi la dëkk ak yi xew Mbàkke mu mel ne Mbàkke dañ ko génne ci Touba ban yow ban gis-gis wala ban yëg-yëg nga am ci tey lii mel na ne lu bees la nga xam ne Cheikh Mouhamadou taxaa taxaw na ngir Mbàkke moom lépp lu nurub safaan wala luy nuru mbirum seytaane jóge fi ndax lii ab tàmbali la moom. xam nga sëñ Mamour Mbàkke dafa jege Touba. ñuy wax ne diggante Mbàkke Touba juróom-ñaari kilomètre waaye Amérique almaañ sapon Japon Tunisie mboolem réew yi ba France bàyyi ko barki démb balaa Cheikh Rafa la bàyyi fépp nooy balaa Cheikh Ibrahima bàyyi fépp dina nooy. loolu xam nañ ci dara. balaa balaa Cheikh Rafa la bàyyi fépp dina nooy ndax la am bërki démb ca Ndakaaru muy Masaalikul Jinaan ku ne xam nañ ci àdduna ba àdduna sosoog tey réew mi ñu ne di Sénégal bis bi toll noonu am. ca ba mu jógee ci bis booba li bi amoon fii keroog la ndax fii la doo ñëpp sëñ Tuubaa ci armée yi fi mu gane addunaa ngi sama ginnaaw mutul kilomètre ñu génn fii daje fi ngir daje fi dajale fi seytaane foo ba noppi génn jàkkaarloo barab yi ba ñu ñi danoo xamul ba ñu ñi danoo fi na xamal nañ leen xamal nañ leen na sëñ Muntaxa def ndakaaru nooyal ko ba mu nooy mokk nu rumbux leer na naññi ñëpp dinañ seen jëfi sëñ Tuubaa ji dootul nëbb kon Mbàkke Bawol gii jige jige Tuubaa lool ci mënoo ni Tuubaa ba nopp waxoo sant wi gii aw tur tur wu sëñ Mamour Mamour nga tudd ndaw nga sant boo ci sëñ Mamour doon kenn du xam koy waxal waaye boo ne sëñ Mamour ndaw Lamp Fall ñëpp xam ne yow la waxal Tuubaa gee bala ñoo xam lu mu doon Mbàkke Bawol gii da ko cee boole kon Mbàkke gii ci Tuubaa la bok lépp lu fi nuyoo ay caaxaan lépp lu fi nuyoo ko fo dina fi jug ndax tubaab bi dàqoon fa ñëpp wàccoon fi campé fi da nga fay kenn keneen fi jëloon ba tey jugu fi ci sëti doon maamam. xoolal lenn ci baar yi fi nekk lenn ci stade kii yeneen terrain yi yi fi nekk cinéma yi fi nekkoon dégg nga maam euh, tox mi mandi mi ki mooy nga xam ne du jeex agresseurs yi ba ci hôtel yi nga xam ne ay caaxaan lañ fay def ban yëg-yëg la si Moustapha si la am ci loolu ngir mu génn ci Mbàkke ba Mbàkke mel ni Touba. loolu dina mel ni li sëñ bi waxoon rek sama diggante ak tubaab bi walu dëgëj la ak wóor dina mokk rumbux ca kenn dégg kàndang diggante dëgëj ak wóor dina mokk rumbux ca kenn dégg kàndang mbàkke ni mu war a mel dina ni mel lii nag day sottee ci kii la jëlee sottee ci ñeneen sëñ mu taxaa fi mu jëlee li li sottee ci moom mooy jumaa ji naan na lii lii dina sottee ci moom saa yi fégalee yàlla na yeex keneen dina jël fu stade bi mën a tuxu fu hôtel yi mën a nekk ki ko war a dindi bu ñëwee dina ko dindi kon liñ bëgg liñ bëgg xam dal moy kon ñi dajé ci waru wi moy ñi nga xamanteni sëriñ bi da leen jox ndigal ñu tok di saytu ak ñi nga xamanteni dañuy dem sa waro ngir indi luñ ci jëf daanaka ñu mëna wax ñoy rek ñoy ak ñi nga xamanteni ñoo féete sa wa manam ngir euh, nandal ak dundal ñi nga xamanteni ni ñoo. waaw loolu loolu lima la wax légui rek sëriñ Moustapha Fall Fallilu ñoo ngi ñaan suñu borom mu gëna a ubbi ab dënnam gëna léral aw aw aw làmmañam ndax bo déggé limi wax naan wa wañu ñoo fi bàyyi waa waaro mooy waa tool ya ña nekk ndakaaru ñu nekk Italie ak fu waay mën a ne ci réew mi te wóor na sa tànk gàtt na mën naa gudd. yónneekaay yi daal moom mi ngi fi te lu waay joxe it mu tàbbi lu waay joxe dina tàbbi ci liggéey bi lu waay joxe rek dina daal ñëw ci liggéey bi kon daal sëñ bi daal ci gàttal góor a jigéen mag ndaw ku sa yaakaar nekk ci borom Touba rawatina Cheikh Ibrahima Fall liggéey baa ngi nii ab baay Fall nag du waxi kese da koy jëf jëf jaay daal a ngi nii. lu waay def daal gis ko lu waay def gis ko kon ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ci dara ji Serigne Cheikh jëmm barkeb Cheikh Mouhamadul Mountakha barkeb murid yi réew mi nag ñu ngi ñaan suñu borom def fi jàmm réew mii ñu ngi ñaan suñu borom def fi jàmm adduna bi bépp ñu ngi ñaan borom def fi jàmm liggéey bi attan ko ndax jamono ji gis nañ diggante Iran Irak ak États-Unis yëngu na lool loolu lépp Cheikh Ibrahima ëpp doole ndax fii dañ ko bëggoon a def ni foofa waaye ba mu beñee loolu amul mu noppi fi foofu la jëm rek léppay nooy Seydina Aliou jërëjëf Ndié. ba tey ñu ngi fii ci waar wi fekk nañ nag ñooy gaase ciment bi. jëwriñu moolkat yi moom. waaw yaay jëwriñu moolkat yi. waaw kon yow lañ la mool yi toll. Hmm. mool yi xëy nañ tey ñetti fan. waaw mu ngi dox loxo bu baax ni nga war a mool tey jii juróomi tonne téeméeri saako démb mooloon juróom ñaar fukki saako. tey téeméer saa ko doon bëggal moo incha liggéey mi ngi dox tubaarkàlla mu ngi ñoo ngi sant bu baax si sëñ bi ñaan sa borom wéral nu ba li ñu bëgg a liggéeyal bi lépp sotti ci wàllu Cheikh Rafa. muur rek waaye muur lañ defagul maanaam am amatul leen luñ def fi ne gaz yi muur rek. waaw waaw muur rek lañ def fi mu ne. dañu bi ñëwee alxames yi bi ñëw bu bu sëñ bi ñëwee bu déggee xel fekk am lu mën a lu mën tabaxee. li ñuy mool jàpp nga nu mu toll

lépp démb tey la. waaw lépp démb ak tey ko mool. Ah. ci loxol euh, benn entreprise wala dañ ko teg ci loxol comme chef benn chef de chantier wala la gën. lépp lépp lépp daa daa mate ko moom. lépp Cheikh Ibrahima ngeeg lépp. lu mu soxla rek mi ngi ci biir. lu mu soxla rek am nañu ko mën ci biir liggéey bi waaw. sëñ Mor Talla Diop yàlla dogal ni ngeen di euh, maçon. sering bu wote liggéey bu toll ni nga xamanteni ni li ci ëpp fu ne wala fi ñu toll si liggéey boog liggéeyu maçonnerie la bo leen gesso gis soxna yi tu tanki mag ñi ndaw ñi ñëpp tak seen ndigg manam ñëw di leen jappalé ci liggéey bi nga xamanteni ni seen euh, seen profession la ana nan la leen di def. alaykum salaam wa rahmatullah seigne ali badra ñu ngi lay ziar bu baax di ziar mbokk yi ñi sétan yépp di ñaan serigne bi mu yagg fi te wér Cheikh Mountakha ak njaboru serigne Touba gi di ziar serigne Cheikh Jëmbu Fall ak Cheikh rafal gep di ziar murid yëpp di kontaan bu baax ci liggéey bi comme ni nga ko xamee rek muy liggéey ba nga xam ni Serigne tubaab moo ko jox Cheikh Ibrahima faal ak njaboot ñu nekk ci nii comme ni nga ko waxee ñu fas yéene koo tàmbali nag alxames bi di ñëw bu dellusee sëñ bi te xeer wi waaye na ni gaa ñi yàkkamte gi tax na ne ci móor yi yi nga xam ne moo war a wër miiru kër gi ci lañ nekk nii fi mu ne démb am nañ ñaari junniy manqué te fi mu ne amagul sax lu romb lañ amoon démb waaye comme ni nga ko waxee rek liggéey Baye Fall moom moo demee noonu kër Cheikh Ibrahima Fall bu nu wootee ñëppay jóg góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi kër genn kër du des looloo waral gis nga gone yi ak soxna yi ñëpp suñ wootee ca xeer ya soxna saa soxna yaa nga ca suñ wootee ca móol ya soxna yaa nga ca gone yaa nga ca noonu rek lay demee ndax liggéey moom moo laaj loolu liggéey bu doon sànce maçon yeneen yi kenn fay nekk wala ñaar wala ñett waaye bu dee liggéey wooteb Seera Fall nag suñ Molinta Fall da daan wax ni ñëw leen junne indi leen seeni i dab la te doo demul sa ndab moo tax ñëpp àndandoo ñëw gone yi ak mag ñi góor ñi jigéen ñëpp a ngi fi hmm. loolu daal moo moo waral waaye bu ñu ñëwee lu ñu bëgg bëgg it maanaam yéen la ñuy déglu yéen ñi nga xamante ne yàlla dogal na ni seen xam-xam moo màcc si mbir mi waaw fenn fu ne kenn nga fa boo xoolee muulkat yi fi ne commerçant yaa ngi nii di jaaykat yi yëpp a ngi fi maanaam liggéey bi nag moo demee noonu suñu seerafaal wootee moom ñëpp ay ñëw ndax ñee di takk feer ba fi ne ay ministère fa te teewul dañ koy teg ci yoon waaye fenn fu ne dañ fay teg nag koo xam ne bokk na ci professionnel ya fi ne mool yee la kees bari bari fenn fu kenn nga fa koo xam ne moo xam liggéey ba su ko defee ñi ci des it ñeeri buddi it xam nga loolu seen liggéey la waaye diggante nag milance bi ak ŋàbb kees yi yóbbu moom bàyyi fal yëpp ko man góor ñi jigéen ñëpp koy def waaw loolu moom loolu la liggéey bi tax kon fi ne nii li fekk euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si bis bi nga xamante ne si la señ bi joxe ndigal ngir ñu teg xeeru njëkk wi yéen moom yéen ngi si ndigal li wala ñun ñu ngi si ndigal li mhm. ngir rek euh, maanaam def mool yi nga xamante ne bu lii day wane ni kon liggéey bi moom day du taxaw ndax day déroulé rek moom taxaw fi ne bu Seera Faal moom bu xasee wootee amul benn bis boo xam ne dañ koy jël pause wala bis bu ñuy delluwaat am démb ku doon laaj sax naan kañ lay yegg ma ne ko liggéey Seera Faal Sëñ Tuubaa amul contrat moom ndax liñ la wax ni la moom ngay liggéey bu demee ba egg Seera Faal day woowaat ki fi nekkal Sëñ Tuubaa mu ñëw xool bu xolé nak bu melé ni ni xam ne foofa la fa bëggoon fa la yam mu ñaan su fekké amna la ñu ci doli mu doli kon sëñ ñoo taxaw ni fi lay yam wala ni lay mel sañ nañ nak ni lay tambalé waaye amuñu fu mu yam moom fi ne ni ko sëñ bu bëggee rek des na ko defee noonu incha allah dal bëgg nañ mool yee ñuy weer bu subaa ñu jël ko mu topp taatu miir bi nag ñu bàyyi ko fi nekkaat ci mool kër yi continuer liggéey dara buñ doon jël ko toppalewaat bu subaa ñu buwaat fam ne woon it dañ xëy ndax suñu moom te daan wax ni eh, bu buñ bu ne nelaw leen moom bu la kenn dàq xaral ndax yëpp leen koy fay waaw ci loolu la nekk kon yéen a ngi xaar plan yi kilifa yi joxe ndigal ci plan yi bu ko defee rek ñu songu li nga xamante moo war a am si biir baram waaw plan bi moom comme ni nga ko waxee woon rek sëriñ bi bi nga ko waxee sëriñ Mountakha def ni jàkka ji lay ñëw teg si xeer bi waye walu plan bi nak mom cheikh rafal xamna ni ko seigne too beugé kon dako ko wat sun bir gaay ni ngi top top plan bi daa génnagul way ñu ko top top inshallah bala ñewit luñ fi war defé defit dañ ko def ndax gis nga tabax yi daane nañ ko yéen fi wara xaddi dañ koy xaddi ngir def ko ay magasin yo xamni dañ fa ma denc matériel bi ak ciment yu mel non lool mom dal luñ fi war def des nako def bala ñoo teg xeer bu seigne bu xasee teg xeer yi nag noppi nanoo bàyyi te la leen digal da ñewal hmm. ban jangene ngeen am ci li jitu barab bi manam li fi nekkoon di barabu bu euh, stade ñepp xamnañ nañ liñ fi def ba tey jii euh, Serigne Touba Serigne Mountakha yàlla na sunu borom yàggal ko fi loolu tamit ànd ak wér gis barab bi ni barab bi nañ ko jox Serigne tubaa tey jii ñu jox ko Serigne waa jàngat bi mooy Serigne tubaa moom daraam du asaar ndax boo xoolee barab ba ngay seen doomam a fa ne fii doomam a ngi fi ne muy sëñ Maodo Lié daal barab yii ngay gis Mamor Diarra fi tëdd yii itam bàpp gala kon njabootu Serigne Touba rek ñoo nekk fii kon fii moom da li fi nekkoon dafay yëlloowutoon ak mu ne fi waaye nag jaar-jaar la woon bu fi jaar boo xam ne nit ki ci lay xamee liggéeyu Serigne Touba nga xam ne ñi fi jaar bari na waaye Serigne Mountakha la ko suñu borom jagleel mook Serigne Cheikh Jëmb ni njabootu Serigne Touba gii fi ne lii moom yëllawul barab bi te diggante bi ñu ko ko waxee ak bi mu ci doxee daa yàggut mu doon ko Serigne Touba kon dafa mbir mi daa dellusiwaat ci loxob Serigne Touba ndax pàkk bi fee wax ni fa la Serigne Touba gën a àdduna kon fii day mbir day bay pàkkub Serigne Touba lépp ko moom ko dafa delluwaat ci loxoom daa delluwaat ci loxoom rek sant nañ baax nag waaw sant nañ yéen ñi ngi leen di sant baax di siyaar jëwrin wi sëñ Maamun ñi ngi leen di siyaar baax tey ñaan suñu borom dolli xéwal yi baax a baax yokk tawfeex yi sëñ Maamun liggéey bi rafet na sëñ Aliou kontaan nañ baax sëñ Cheikh jëmu nag na ko ñëpp ñaanal mu gën fee yàggaate wér waaw mooy Cheikh kat na fi yàggaate wér waaw dégg nañ ko sëñ Maamun mi da koy wax lu bëree bëri na fi yàggaate wér waaw kontaan nañ jërëjëf ñu dëgg yàlla tàmbali nañ ko ndigal li tukkee ci sëñ Mountakha Mbacké tàbbi ci sëriñ Cheikh Fall jëmb xam naa nag ndimbal lan nu ko defalee ndax ku xam kër Cheikh rek xam leen ci ndigal xam leen ci joxe addiya ak jëf ak yar ak teggin yàlla dogal na nag at yi yëpp murid yi am nañ ci xememteef am nañ ci ak bëgg am nañ ci ak jublu waaye yàlla dogalu ko woon ba ren jii nag sëñ Mountakha moom defal nu am ngatandu ci ndimbalam ak yërmandeem ba tabbal ñu fii nga xamante ni moo doon stade bi nga xamante ni barab bi ci saayir walu jongante ci mbirum aduna képp mo taxone ñu taxaw ñu taxawal ko tey mu nekk ci gox bo xamanteni yalla da dogal njabuduk seigne touba gi dañ fee nekkee rawatina barab yu mag yi nga xamanteni mag yi mag fi la teud nga xamanteni ñaare bu nit ñi daan denc ci fecc barab ya stade bi bu ñu kenn jongante ba am ndam ci sa morom yu xoyé ya dañuy galankor sax ña nga xamanteni ñoy denc kon lii moom ab lijjante la ci baaxu sëriñ bi ak ndimbalam ñu jalaat ko nag tàbbal ko ci loxol Cheikh Ibra pour mu dekkalaat barab bi ndax barab boo xam bu ñu fa jëfee lu yàlla gërëmul ku dul Cheikh Ibra mënut a dekkal barab waaye bi fi Cheikh Ibra tàbbee nag ku ne xam na ni barab bi buñ ne la woon nii barabu stade la woon ca ca fekke woon njëlbeenu démb ga mënoo xam lool waaye fi mu doon nii turu yàlla wi xasida yi góor yàlla yi wàll yu ñëpp a ngi fi daje fas yéene jëfe ndigal sëñ bi bàyyi ay tere ci sëriñ bi lu yéeme mooy mbooloo mu toll nii nga xamante ne li si si ñoom at soriwul maanaam daje fi kon niñ ko doon defee kon ñi ko doon def si saayir sa nga xamante ni foofu su ne bu ñu dajewoon football bu noppi dégg nga xiiroo ŋaayoo yu ne da nga ko fi dégg fii mbooloo mu toll nii daje di liggéeyal yàlla doo fi dégg sax ku mer sàkkantuma laa ko fi jàppante naka nga ko jàngate waaw euh, sababu loolee nak bok ak bëgg bok ak jublu bok pas-pas moo nu may loolu ndax bu ne bo démé ci lamba ja fekk fa mbolo bo démé ci stade ba fekk fa mbolo waaye lay waral ñom buñu démé ba lañ doon def jeex la waral ku ne di jël ngànnaay jëmale ko sa morom ki mën na lor morom ma kee mën na lor morom ma loolee lépp la waral moy ñak bëgg bok ak bëgg-bëgg te bokkuñu ak djublu ki day xëc jëm fi ki xëc jëm fi moy waral bu ndam jamee fé ñii bi di ko jàmmaarloog ñële ñuy finnaalante lu ne mën caa xew waaye fi nak benn baat mo fi dajale muy baatub Serigne Touba mu tabbi keur Cheikh ibrahim Cheikh ibrahim wo fi jamm te ku ne bi ngay ñëw li nga bëgg noonu nga ko bëggale sa morom li nga am pas-pas def ko noonu nga bëgg sa morom def ko kon yéene yooyu ak bëgg-bëgg yooyu ak pas-pas yooyu moo nu fi dajal nga xamante ni rak bu tànk mag ku diggu doomu ñëpp ku ci ne da ngay jàppee sa moroom ni kii sa jëmm la loolooy waral maanaam lu ci ëpp fitna du fi am dara du fi am lu dul jàmm ak salaam ak jëfe ndigal li ba mën a fexe ba làq ngërëmal sëriñ bi tey ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér loolu moo waral jotaay bi nii daal waaw wóor na sëñ Fall waaw Fall sant nañ baax a baax ngaa jëfati rek ñu ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ci daraje sëriñ barkeb Cheikh Fall Fall jaa ngeen jëfati murid ñun ñoo féete fii ci ndox mi ngir murid yi nga xamante ne bi ñoom ñoo féete ci xeer yi buñ ñuy féete ci ciment bi tey ku ne xam ne ne lii moom liggéey bi ñoom ñoo kon ñun xam ne bu ñu defee xeer def def suuf jaxase ñun ñooy duyel ñi nga xam ne dañuy yóbbul ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi bu ko defee ñu mën a ñu mën a ñu mën a yaatal liggéey bi waaw ñun ñoo féete fi nga xam ne mooy fii ci ndox mi ànd koog suñuy jëwrin nag Assane Mboup Baye Fall mi nga xam ne moo doon jàlle kàddu yi di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfeex bu baax yokk ko kattan ak wér di ñaanal sëriñ bi nag di ñaanal sëriñ mën sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu tawér liggéey bi amul mag amul ndaw ndax soo gisee ñii ñëw di root si ndox bi sax ay tout tànk lañu yoo xamante ni tubaarkàlla macha allah wane ni moom liggéey bi moom kenn warul ni damay dem bàyyi sama doom ginnaaw wala damay dem bàyyi sama waajur ginnaaw. waaw loolu li ko waral mooy yoonu Baye Fall amul mag amul ndaw ndax sunu maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamante ne bii moo tax ñuy jëf wootewul ci doole ndax bu woote woon ci doole am na ñoo xam ne dañoo fooyee duñ mën a ñëw waaye wootewul tamit ci alal. ndax bu woote woon ci alal am na ñoo xam ne amuñu alal duñ mën a ñëw waaye wootewul ci ci ci xam-xam ndax bu woote woon ci xam-xam am na ñoo xam ne jànguñu duñ mën a ñëw ci bëgg la woote ak bëgg nag handicapé bi sax bu ko neexee toog ci kaw pus-pusam ne la maa la gën a bëgg sëriñ bi bëgg googee nag day ànd ak jëf mooy bëgg ak gëm ak jëf te lii nga xamante ne bii mooy ndigal ndigal mooy dundal ab bay Faal ndigal moom moo waral lépp li fi nekk sunu maam Cheikh Ibrahima Fall dem na ba àgg sax ne la iblis mi nga xamante ne bii mooy njiitu sawara yor sa kurus naan onze billahi mina seytaani rajim taxulaa mucc ci moom jàng alxuraan taxulaa mucc ci moom julli yu métti taxulaa mucc ci moom la lay tax a mucc ci moom mooy da ngay dem dëkk ba mu gental nga sanc ko dëkk ba mu gental nag mooy ndigal léegi yow soo bëggee mucc ci moom da ngay dem fa nga ne bi moom la gental mooy ndigal nga sant ko daal di mucc ci moom loolu la saamam sax jàngale moo waral saa suñu wootee murid yëpp mën a daje mën a ñëw képp ko am sa tànk nga indaale ko ko am sa soxna nga indaale ko ndax waxoon na ne kat liggéeyu sa Bamba bi kat ku ci yónni sa doom toog bu ñëwee di sa baay ku ci yónni sa rakk toog bu ñëwee di sa mag daana doom ku ci yónni sa jabar toog sax bu ñëwee di sa jëkkër daana ku ci yónni sab taalibe toog bu ñëwee di sab sëriñ daana lii yëpp a ñëw kon bokk na si euh, lii wane ni euh, fii lépp lu fi nekkoon lu nekk rek dañ ko fi dëjjati ba mu jeex tàkk ndax lii ko xool xam ni lenn la woon si dalu tribune bi tribune euh, stade bi nga xamante ni moom moo fi nekkoon gis ngeen bañ ko déjjatee it dañ koy tas ba nga xamante ni ay xeer kese lay doon ñu jël ko euh, jal ko fexe nan lañ koy jëlee si barab bi ndax barab bi liñ fi fekkoon yëpp mbokk yi yéen a ko gisandoo si image yi ab stade la woon bu ñu muré woon ànd ak tribune ak yëpp yu mu waroon lépp la ñuy toj waaye duñ yem si toj ko waaye duñ koy buub tasaare ko ba mu jeex ñu yóbbu ko fu ñu ko war a yóbbu bu ko defee nag daal di fiy tegaat leneen lu bees seq xam ngeen ni lu bees li weesuwul ndigalul serigne bi inshallah dinañ ci dëkk ci euh, technicien ñu mën ñu ko léral ndigalul serigne bi nak moy def fi ak jakk euh, def fi app institut islamique ab daara jang kat jang kayu alquran waye def fi ay dalwaay manam keur serigne Touba gu mucc ayib fii si Mbacke xam ngeen ni nak euh, niko bay baram boj waxe nga xamanteni digam ak fi nga xamanteni fi lañ wax ni fa la serigne bi feeñee daanaka da ngay jéggi talib rek gis ko matul sax daanaka ñaat téeméeri mètre wala ci lay yam wala téeméeri mètre kon nak ñakul ni ñom ñi nga xamanteni ñoy suñu sunu mbokk mbokki Baye Fall yi nek fi di liggéeyal serigne bi ñu euh, am ci ñom euh, ñaar ñetti kaddu ci ñom ñom ñom mouride yu bax yi. ñun ñoo ngi jógee Touba tan sir biñ dégg ndigal li dimanche lañ ko dégg ci ngol ñu xey altiné fas yéene ànd ak kay ci liggéey bi ay lepp lo xey serigne dalé ko mëna bëgg rek ci mam Cheikh la koy jaaral lepp sat kay doon ci pëccëf nak fas yéene ci nek nak ba lepp mat ci ndigalu si Mountakha ci ndigalu si Mountakha lu ko bëgg liggéey inshallah allah jëfandikoo rek bàyyi dara yii mooy dali tribune bi. kon nii lañ ko fas yéenee jàppoo. ba daanaka dara du fi des. ba mu jeex tàkk moom kay dañuy génne fondation ba mu jeex tàkk defaat fi leneen lu a la gaa yi fas yéenee incha loo ci dégg fan lañ ko war a yóbbu wala dañ koy maasale si barab bi. ah gravaay bi xanaa dañ koy xool rek fu fu oto yi nar a foncé rek def ko fa ba mu noppi waaye li ñu ko war a liggéey moom lépp lu bees la war a doon incha allah. kon yemuñu si déjjati waaye dañ koy tas ba nga xamante ni euh, dara luy euh, luy luy xatal wala luy encombrant du dara luy xatal du am ci liggéey bi ndax lépp war a rek te aw yoon barki maam Cheikh. man Modou Gueye laa tudd man Touba la Darou Manane daa ñëw si liggéey bi waaw ah. liggéey bi de moom <laughs> baafaal nag baafaal rek suñ wootee digal ñu wuy ji rek fexe ka liggéey ba mu àgg allah loolu ah. isaay bi moom danoo amul noonu def dañu doon roñ xeer waaye toj bi moom àgg na waaw. foofu fii oto jaar rek lan doon ko yóbbu fii oto jaar ah. ngir yombal oto yi mën a dugg si. waaw foofu da ah, woon suuf. oto hmm. yi fi ni jaar rek lan doon may leen jàll. defar ngeen ko ba noppi di xaar geneen ndigal. waaw defar nañ ko ba pare di toog di xaar beneen waaw. Hmm. jaajëf. dañoo ñëw si niñ mënee daal di jàpp si liggéey. deug la liggey mom wax deug yalla neexna torop deug yalla waaw ñaar bay faa joge hmm ñun xana liggey rek ba gon jot ñu wacc ñun mom dañuy jël xéeri di di hmm wa ak maye ndox lepp lépp. Hmm ah xana ñepp rek ñew ñu liggéeyal Cheikh Ibra rek. ñu ne ñu xey leen ñu daal di xëy bu ñu señ bi wacce ñu delluwaat ci kër yi bu bëtt sété ñu bu ñu déglu wat ndigal bu ñu wacce ñu de wacce di déglu wat ndigal bu suba bu ñu xeyé ñu soñé wat ñu daal di awaat ci woon mi daal di fas ñu rek nekk ci rek buñ nee nañ tibb suuf ñu tibb suuf buñ nee nañ tank ndox ñu tank ndox lu ñu def lo rek ñu def ci lool daal lañ ne ñun fini nii fa man de lool rek la laa moo mom ndigal rek jëfee ndigal bàyyi tere bu ñu xëyee daal sunu loxo gi sunu ginnaare ba jant sunu tëdd incha rabbi walu waru soxna yi tibb suuf ak tàng ndox ak lépp la ñu defee moom lu góor ña nekk rek ña yanu birig ak lepp bañu tajé mur ba fi jigen ñi dàq yanu góor ñi digeñ ñoom la melni sax boko ko seet ñoo ëpp positif góor ñi xoolal góor ñi jigéen ñi kër ay ñetti mo la nga jigéen ci ko yenu loolu kay xamaa ne moom positif dëgg la moom te sëñ bi leen di jàpp rek lépp moom ci loxoy sëñ bi rek lañ ko teg Seex Ibra daal la jaral lu ne moom waaw waaw. waaw waaw. Jeñ Bambulaan ku ca xus tooy ku ca xus tooy Jeñ Bambulaan ku ca xus tooy kusa kustoy waaw waaw yem na ndigal bëgg na ndigal Baye Fall yem na ndigal waaw waaw waaw moom dafa yàgg te sunu waajur la ba ndigal ca carrière ba ba tey ñii soñu góor yàlla ci waar wi di jëf jël loolu la ñu sunu waajur ñoo ko nekkoon ak ñoom ba tey jii ma yore ko nekk ko ñoom di soñ nag góor yàlla ci waar yi boole ko jëf jël ndax mu ne moom ndigal rek la am. ñi si waañ yi moom ñi si waar rek a leen fi bàyyi kon yéen daal mel na ni moom yéen a ngi si ndigal li bu wér. ndeysaan salaamaaleykum wa rahmatulah taala waaw ñu ngi santaat sëriñ bu baax kay waaw gën a ñaanal maam Dioum Fall mu yàgg fi lool tànn ak wér barke maam Cheikh Ibrahima moom lépp lu def rek moo ko def loo te ngërëm doon lañ ci sàkku waaw nitu bu baax nag Fall Ndiaga waaw daanaka moom baaxal moom dëgër rek te moom sëñ moom waare moom daa yaatu te ku nekk fa la suñu féetale kii kii soññeek ñi ne ci waar wi ak ne ci xéewal yi ak ki naan Baay Faal yëpp rek ci ndigal yi la bokk ndax bu ngërëm taa bi bokk ngërëm li boole ngërëm ñun nag sëñ bi dañoo féetale ci wàññi ñu toog wàllu xéewal yi ñoom suñu jur na ñu nekk ndaw ñu jaa ñu gisal teg ci teg ci yoon wañ ñu naka nan la ak naka la bañ tegu ci yoon yi ba ñëwaat am yeneen tuntànk yu ñu daan ñoo teg ci yoon wi waaw daanaka rek waaw mooy mooy luy jëriñ wax rek waaw daanaka ñun lo lo dañ ci lool ci wax ci kàddu yi waaye ndigal moom daanaka moom mu do do Baay Faal amul loolu ndigal ndigal la ngay jëfee. waaw am na jëriñ yoo xam daanaka moom lii ñoo ko gën a mën fop dàqañu ko téeméer junni yoon te njëkkuñu ci téeméer junni yoon ñoo xamuñu nan la ak nan naka la kon ñu joxee kàddu ñu wax dañuy wax li nga xam ne moo ne ci wàññi rek ñoom daanaka bu ñu xëyee rek naka dañuy jóg fajar nekk ci ci wàllu lépp lu mu wax ñu laaj rek ñu xëyee ne ci ne ci ne ci ba mbir yëpp sotti ñu gàdduwaat lépp indiwaat fii di xaar di xaaraat ndigal tamit waaw dañuy togg ba mu yemb ñu ko sëñ bëggee bañ jàpp ne nii bëggee na ko nii rek ñu yëkkatiwaat ba mu baax daal indiwaat fii xaaraat ndigal si mu joxe ndigal ñu ndax ay góor yàlla la wala ah, da nga am soxna yoo leen ko àndal daanaka moom ma ma fiere moom daanaka daa am soxna ami Baay Faal lu baax moom ñëpp ko bëgg yàlla waxul ñu ne gën a góor yi rek di bul lu baax ni ko ni ko góor ñi bëggee nan la ko jigéen ñi bëggee moo tax waañu moom daanaka am na góor am na jigéen waaye ñun xàmmuñu góor a jigéen ndigal leen mooy ñor waaw nu ñu fexee ba li siñ bëgg rek moomee ko noonu daanaka loolu moo ñor rek waaw waaw di leen jaajëfal bu baax a baax ah, di wax ne dafa mel ne yakk ngeen ba indi <laughs> yéen ay féete waañ kon yéen moom da ngeen am solo ci liggéey bi ndax Cheikh Ibra Fall mag ñi daan nañ wax ne buñ daan liggéeyal sëñ bi ba waxtu añ jot daana wax murit yi ana ñuy liggéeyal sëñ Bamba su ne ñu ngi ni mën a ñëw leen añ waaw ah, kon daa mel ne daa mënta ñàkk eh, naka ngeen di taxaw waañ wi ci liggéey bu tedd bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi koy liggéeyloo suñu Cheikh jëmm yéen ngeen féete ci waañ wi nag di togg di jox murit yi ngir ñu mën a def dara ndax saako bu defut du taxaw ma a nañ ko wax su ko defee mën a pëseefu ci liggéey bi est-ce que ñu gërëm Serigne Touba bu baax sant Serigne Touba di wax jërëjëfe maam Cheikh Ibrahima Fall ndigal li Serigne Touba moo ko jox maam Cheikh Ibra waaw maam Cheikh Ibra nag mooy sëñ Cheikh jëmm moo fi nekkal maam Cheikh Ibra Fall jamono jëm toll waaw moo moom mooy suñu sëriñ moom lañ yaakaar fii ñu nekk ak fi ñu jëm waaw mu jox ñu ndigal li nañu pour ñu ñëw fi togg jox Baye Fall ñu berdee ko ñun si liggéey bi lañ bokk comme ni le dañuy dem si liggéey bi bu ñu kiyee dañuy dem si liggéey bi mais ñi ngi ñaanal sëñ Cheikh jëm mu yàgg fi loolu te wér bu fi yàggee rek muy njëriñu Baye Fall yi yàlla na fi yàgg te wér Fall barki maam Cheikh Fall yàlla na fi Serigne Cheikh jëm yàgg te wér bu fi yàggee te wér rek muy njëriñu Baye Fall yi. kañ di xëy ci waañ wi. waaw bu dañ fiy fanaan. Hmm. fi la ñuy fanaan waa dañ fiy am néeg ak yëpp. waaw fii waaw. waañ baa ngi ne fa la ñuy fanaan. Hmm. bu ñu xëyee fajar 8h 7 dañuy yeew jublu si liggéey bi ba ñi ñu wàcc ba ñibbi ñu raxas suñuy bu añ seddalee ba pare raxas suñuy bool préparé waat suba ndax gars yi duñ fi reeree. kon daal fii amul toog moom. non amul toog de. koo fi gis ku ne am na ci lu muy gis ku nekk na xale bee sax ngay gis ne la am na ci lu mu nekk. Hmm. am na si waar bu nekk ku nekk si am na waar bu nekk ñun daal ñi gi ñaan sëñ bi yàgg fi te rek man loolu la am may wax yàlla na fi sëriñ bi yàgg te wér bu fi yàggee te wér rek ñun ñëpp mooy suñu njariñ ñun barki maam Seera Fall waaw jaajëf ñi gërëm Baye Fall yëpp nag di ñaan sëñ Fallou Fall tamit mu yàgg fi loolu te barki maam Seera Fall man a xanaa li sëñ bi leeral lañu fu liggéey bi toll ak li fi bi naal ak ndigal li fi sëñ si kew bu ñu solee kew ñu waxtaanee ko waxtaanee ba ne rek dañuy seeti dañuy seet sëñ bi gaawu na gaawu na ñu dem fa doon ko seeti woote foofa sëñ bi man man man nañoo dajee ci kër gu mag gi man ko fekk ci kër gu mag gi ma ànd ak sëñ Saliou déedéet ma ànd ak sëñ sëñ si Assou Ndiaye ak sëñ Mbacke Fall ak sëñ Fallou ñu ñu dem dem fa. ñoo fa seeti ko bañ ko seetee nag mooy wax bañ ko gisee rek waxtaan ceeg moom fekk sëñ bi jox ma nii ñaar fukki million ak différent ak ak ak xaw ma ba une tonne café ak suukar ak bërigo jar kë kë yaa ngi cent pour cent waaw kii yaa ngi cent pour cent man ah, daal keroog daal daal loolu loolu daal lañ lañ ñëwoon keroog.

waaye euh, waaye waaye ñaar fukki fan ñaar ci weer yi ñu nekk la wala wax gisoo ko nii lii lii la ñu lii ko lii lañ doon yóbbu keroog waaye xanaa muur yëpp xam daal muy muur yëpp da xam ne xam ne ndigal jot na ko ndigal jóg na rek ndigal jóg na te ndigal yi moom ñoo ko bokk ndax keroog suñu suñu di ñëw waaye yeban euh, nekk ak moom sëñ kew kew ah, ñu ànd am na sekk ñëw am na sekk waaw ah, kew ñëw loolu yaakaar naa yaakaar naa war ko bay daal daa kii ndax ndax ndax ah, jàkka daal la fi bëgg daa bëgg ñu miir ko ñu miir ko defar ko fi jàkka waaw jàkka joo xam benn solo lay doon loolu la wax loolu daal la wax keroog gaaw ñu ne daal dañ ko fi defal jàkka joo benn solo lay doon waaw waaye tew xew daal xëytal weer wi daal la wax ne ci lañu woote xeer wi waaw kew daal loolu la ñuy wax keroog ko fekkee fee ci kër Sëñ Tuubaa gi ginnaaw daanaka daanaka bi ñu ci boo wàllu takkusaan rek lañ ko boo takkusaan lañ ko gis xanaa góorgóorlu rek ñëpp jàpp ci rek xam naa moom daal moom daal xam naa daal ñu miiree ko daal defal ko fi daara ak jàkka ak xanaa ak ak ay ay dëkkukaay rek ay dëkkukaay rek ay dëkkukaay rek ay dëkkukaay waaw. lii moom lii moom lii moom da ko da fii da ko war a am dafa kër daa war war yàlla war na fi kër waaw ndax moom mi ngi dëkkoon fii ci mairie bi sëñ bi dëkk fii ci mbak fii fii sëñ bi dëkk fii waaw xam ne dañ daan ànd di dem ay gaawaan ak Daaru Salaam yëpp ci fii lañ dëkk bii fii lañ la àndee dem gaawaan ak Daaru Salaam eh, ak ndokk wax nañu daaraam fii ci buntu xabru yi xabru fi nekk fii ci mairie Mbacke bi daal mairie fii ci mairie bi daal fi la dëkkoon ba gas fa teen teen boobu sax am jamono wax wax naa Ibba Ibba Ibba teen bi jox ñu ko ñu defar ko di ko barkeeloo ndax xam ne jamono yooyu bu bënneeb teen ku bënneeb teen ba foo foo nga wax ko sa sëriñ sa sëriñ ñaanal la waaye ginnaaw ginnaaw bi seen teen ah, sakk nañ ko mu ne xam naa ko am moom xam na ko nekk xam naa ko teen bi am di sekk xam na ko ah moom daal lañ miir lu ma fukki mètre def ko terrasse def ko këru Cheikh Fall loo loo loola war loola war na waa dëkk bii war na waa dëkk bii ah, war na waa war bii man man ndox mi ndox mi ciy génnee sa suuf si ndax ginnaaw moom fii la feeñee man ndox mi fi génnee dama dama koy naan man dama koy naan fii de sa sa sa dërëm de du jar ndox mu ndox mu neex mi bidon yi sa dërëm du ko dal. sa dërëm daal du ko jar ndax ndox mii nga xam ne fii bi feeñee ah, ka xam ne sëñ daa toog ba bi ba fan laa dégg Mourou Maam Amar di waxtaan ci sëñ Mourou Maam di wax di wax di wax léegi nee na sëñ bi sëñ bi di yem sëñ di se di yem Cheikh Ibrahima ah Cheikh Cheikh Ibrahima Cheikh Cheikh Ibrahima ah am mu nekk ku nekk posat buso wax naa dafa naan yaayam la mu ne ko waaw waaw lu Cheikh la defati mu ne ko lu Cheikh la defati mu ne ko dafa teg fa ma sama borom teg dafa maa teg fa ma sama moo fa ma sama la ma Cheikh la teg waaw ma ne ko ma ko <laughs> ah ma ne ko ma ne ko bi ma déggee waxtaan wi ci guddi ma ne loolu dañuy sant loolu dañuy rek la ñu war rek la ñu def. sant rek yàlla defal jàmm waaw yàlla yàlla suñu uh-huh. uh-huh. na jub daal fan ñàkk wërsëg rek uh-huh. waaw waaw waaw daat fan jaxasoo goo xam ne ci la loolu moom du jur lu may gàtt fan ñàkk wërsëg gàtt fan ñàkk wërsëg xam naa fii sax ku ko mënoon boo fi ñëw ja ah, fi ñëw jàpp ba set moo gën a ba war jàpp ba set xam ne xam ne liggéey xam ne kër Sëriñ Tuubaa la kañ ko jox mu wóññi ko ne léegi da koy def kër Sëriñ Tuubaa ku fi nekk kër Sëriñ Tuubaa mu nekkal la fi loolu wax loolu la ma wax keroog nee na nee na lool lool loolu la wax ne da koo bëgg a liggéey def fi jàkk ak daara ah ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa rek. mu nekk la fi nekk fi nekkal sëñ la fi ne yaakaar ne lii ñu yóbbu bëgg dem yaakaar ne bootu xam naa ci liggéey ba Cheikh Rafa loolu xam naa ne la ko bëgg a liggéey ndax barabam bee fi tëdd ne dafa waxoon ay waa këram leen bu ëllëgee bu ko kenn lekk li fi ñëw bu ko kenn lekk nañ ma ko joxal ku fi nekkal sëñ Tuubaa muy leen charia ci barabam bi ndax man ka damaa bëgg a liggéey sëñ Tuubaa ba fu tëdd suuf sama suuf di ko liggéeyal dama ko bëgg a liggéeyal ba mu matali suuf sama suuf di ko liggéeyal xam nga kooku kooku wàccul ah kooku ku naan ah? kay kay kay kay kay xam ne léegi nga matal dem ngay woo sa waa kër di waxtaan ñoom ngeen dama bëgg sama boo liggéey lu fi ñëw nañ ma ko joxal ku fi nekkal sëñ Tuubaa ndax man kat dama bëgg a liggéey ba fu ma suuf sama suuf di ko liggéeyal xam nga kooku wàccul kooku wàccu moo ko yaanu ay góorgóorlu li ma ci wax euh, du bari ci sëñ Fall rek lay wax ndax moom mooy jëwriñ ji bi nga xam jox nañu liggéey bi sëriñ bi ñu ànd dem ci sëñ Sidi Moxtaar moom mooy jeerini ni Cheikh Jëmb biñu tambalé liggéey bi dafa wax né dañu xam dañuy dindi mbolam li fi nek ci biir génné ko ci biti ba dar ba set ñu xaar nak ba xeytal wër wi ñu doo ko tàmbali liggéey bi waye mom dafa wax né liggéey seigne Touba du ci ñew di delluwaat di xaarat ba tax na ñu ngi ni di mol néna mom bu fi joggé baatu ndigal ko fi joggé wala liggéey bag mi ngi fi waxtu nek waxtu wu ne ak waxtu wu ne nag mi ngi fi di déglu di di ta liggéey bi rek di ko taxaw ku fi ñëw da nga ko fekk luñ ko ci jox nag dana ko def ci liggéey bi moom def da jël li maam lépp dana ko def ci liggéey bi nee na jógewu fi guddi jógewu fi bëccëg mi ngi fi waxtu wu ne kon loolu rek laa doon jottali ñoo xam ne moom mi ngi fi jógewu fi te mooy jëriñ liggéey bi lépp lu lépp lu am muy feer muy beton muy suuf muy xaalis lu mu mën doon boo ñëwee dana la ko defal ci liggéey bi sëriñ tubaab bii liggéey sëriñ Touba rek moo fi nekk nag loolu leen lu waaye ma def lu liggéey sëriñ Touba xal xalsan ngaa perte fii perte fa nga jëm liggéey sëriñ Touba bi nag ginnaaw jóg na te sëñ Mountakha mi fi nekk jëwriñ sëriñ Touba joxe ko jox ko sëñ Cheikh jëm mi fi nekk jëwriñ jëwriñ Cheikh Ibra moom mi muy jëwriñ ñu tegaat ko ci loxoom mu ne fi wax na ne kat képp ku bëgg a jëriñu ñëwal ci liggéey bii jariñu ci ndax kaay leen june ju kaay leen jël la nee na ngeen ni ko nag ku bëgg a jël na nga si te ànd ak li nga yor indi ko jërëjëf. nee na du fi jógee te baatum ndigal jëlewu ko fi mbaamu yegg nu fas nañu ko yéen a ànd ak moom yàlla nañu sa borom defal wér defal ko ko moom mii waaw fas ko yéen a ànd ak moom ba mu nu yegg colet barke sëñ Touba ak Cheikh sëñ Modou Fall. fii ñu gënoon a miin si stade bu Mbàkke bi sunu borom dogal euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha mu Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na sunu borom yàggal ko fi loolu tamit ànd teg ko loxo si loxol Serigne Cheikh Jëmb Fall ngir ñu nag euh, naal fi liggéey bu rëy ngir Serigne Touba Xaadim Rasoul euh, liggéey bi nag di yeesalaat barab bi. Mm, ba nga xëy ni daanaka day mel na meloon bu ñu noppee nag daal di yëkkati liñ fi war a yëkkati moo xam miir bi la ak lii aaju si biir. ziar bu baax a baax ni nga ko waxee sëriñ Falilou Fall mi nga xamante ne mooy jëwriñu sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. <clears throat> sëñ Ndaw ak sëñ xam ne yéen fi teew te bi nga xam ne ko tuddee seen mu ñëw fi yéen li nga xam ni sëñ Mamadou Mountakha mu ko yëkkati jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall mu sëñ Cheikh Jëmb mu jëwriñ bi nga ñëw ne di siyaara si liggéey bi di ko jël si aussi ne ko yaatalal sëñ bi soñal ko ci foofu jullit ne ba ab taalibe ne fi ci àdduna ñu dégg liggéey bi nga dégg moom mooy njariñ rek moom moom moom lañ bëgg ñu dégg ko nag li fi njëkkoon nekk ku ne xam ku daana ko dégg ci wàllu àdduna ñaan stade barabu foofu gaay yi dañuy day mel nag àdduna moom gannaaw suñu mel ne ko àdduna ak kon foofu nag fu lu baax ne alalama fu lu bon nekkit alalama waaye nag lu bon moom moom la ci lay liggéey fii nga xam ne stade loon boo xam ne dañoo wax naan dañoo wax naan fii suñu ñu bari nañ fi la feeñee mbaa boog ñu bari wax nañ nekkoon na fi dañu daal fa rek moom la bëgg ñu dindi ko nag ba waa dëkk bi nag xam naa dajaloo jël barab bi jox ko sëñ Tuubaa addiya ko defee nag da ko ci loxol Seex Mamadu Muntaxa nekk fi Xaadimu Rasuul moom itam mu wax ni barab bii de li mu ci bëgg mooy defal ko sëñ Tuubaa daara ak jàkka ji ñuy fàttali lislaam waaye loolu nag Serigne Fall da ko ci doy moo tax mu ñu yónnee ndaw nag sëñ Basiru Mbàkke mu sëñ Abdou Xaadir ak sëñ Cheikh Mbàkke ak mu ñëw Mbàkke ak sëñ Cheikh Jëm ko fa jox ko ndigal li boo xam ne dafa bëgg nga liggéeyal ko mu isaat bu ne yoonu Njaaréem booy génn Mbàkke mbaa booy booy booy dugg Mbàkke sa càmmoñ <coughs> nag seet na ko ba xam ne daal lu mu ci bëgg Serigne Fall la moo ko mënal moo tax mu jox la ko bëgg na nga wax ko waa kër Cheikh Fall gépp njaboot ñu bokk ko ndigal la sëñ Tuubaa ñëw ci kër Cheikh nag mooy ndigal la murid yëpp sëñ bi nag woowuñu fi ngir dina sonal woowuñu fi ngir dina jëriñoo dana woo ngir dina dimbale ndimbal nag mënu koo def ci loolu nag jëfaloonu ndax sëñ moom du maye dara du able du saraxe day jaay te njëgg nag moo jënd <clears throat> njëgg nag moo jënd moo waral moom wax ko ni ko nag na ko xam mboolem ko bokkal Cheikh Fall ak ko bokkal si seex ci mbir ni ndigal mu ñëwee yéene ko ñëpp nga xam ne nañ njëriñ àddina ak lu àlaaxira defaru tey góor ak rek a ci ne bëgg nag jullit yëpp ak Baay Faal yëpp ak murit yëpp ñu defaru si muy dafa bëggoon nag képp koo xam ne seytaan nga taxaw ci kaw suuf sa bopp kaw nga def jullit sëñ bi ne la woon na ci liggéey bi rawatina nag ñu ne ci biir réew mi te yaakaar Seex Ibrahima Fall seen yaakaar ci seen Tuubaa góor jigéen mag ak ndaw nag ni ñu mën a bokkee léegi bari na lool ndax wootee ko ay bari na yëpp yéene ko ay bari na man ngaa ne ci Amérique mbaa nga ne ca France mbaa Italie mbaa foo ne ci biirum Afrique mën ngaa xëy bala ngaa xëy balaa huit a jot nga mel ne yaa ngi ñuy xëyandoo yaa ngi ñuy a la nga yónnee mën a agsi fii fekk fekk leen fi mbaa ñu mu jiitu leen fi yaa xam noo ko yónnee nag ci yónneekaay yi ñu ne ci réew mi itam ñu ñëw jë ñëw di si ñoom wàcc nañ waaye ñëwul tam am nañu mën a ñëwee muy jëf rek ba tey nga xam daal ak sa ndaw loo yónni mbaa sa mbaa sa doom mbaa sa soxna mbaa nga ñëwal sa bopp yaa xam da ngay indi sa kornatu gerte mbaa musum tàngal mbaa sa kafe boo tàngal mbaa añ boo togg indi ko fi mbaa nga ñëw jëf waaye lu ci waay mën a daal bari na lool waaye nu ko maay defee rek bu ko noo ko maa defee rek moom la lay fay moo la foofu la nga ko joxoon mu ngi mel ni yow foofu sa bal boobu ñu naan ab tengs dóor ko ci am miir bu dóor boobu bu dóor bu méttee boo mayul bu ñu atee ko muy gën a métti na nga dóor ci miir ba kon la jox Sëñ nag bu ñëwee noonu noonu lay noonu lay ëppee na nga ko joxoon kon nan waajaat te diggaat ndigal li te fas yéene jariñu si ndigal li nag bu mu ñëwee si loxol Sëñ Cheikh Jëm Fall moom joxaat na ndigal ñu woote altini ji weesu xam naa du weesu hmm, xam nga ñeenti fan ci weeru tubaab mbaa foofu du sori foofu mbaa juróom benn fan tàmbal nañ ko nag ñoo nañ fi dindi nañ miir yi dindi tabax yi fi nekkoon di maasale fas na yéene it tàmbali liggéey bi waaye àllarba lañ tàmbali mool yi mool na moom tàmbali nañ ko àllarba nga ne fii daal noo ngi liggéey bi di taaxalu ndigalal Sëñ Muntaxa Mbàkke ci la ma ni dafa bëgg ñu teg xeer bi juróom-ñaar ci weeru wolof fii di ne dara di gàmm mu jumaada awal ñaari fan ak juróom-ñaar la bëgg a teg xeer mooy teg si xeer yi mbaa ku mu ngay jëmam mu teg xeer yi mu nag fas na na ko du ko bàyyi mukk te du nu ko bëggee da ko na amee tàmbali daal caabi yaa da mooy déglu fas na nu ko bëggee rek bu so yàlla daan koy defee te amatuñ genn yite fenn amatuñ genn bëgg fenn lu may bëggam rek bëgg suñu tubaab kenn ko def na nga rafet njort ci la nga bëgg sama borom dana ko defal waaw ku def bëgg suñu tubaab gii na nga rafet njort si bopp ni la nga bëgg suñu tubaab dana ko defal kon na sama borom noo koy ñaan mu dimbali nu di war si xamun taxam sa jëm Fall mu yor liggéey bi mu dimbali nu ba wéral nu te aar nu te sàmm nu te mënal nu nag li ñu bëgg lépp ban jëfe ko waaw kon nag suñu baa ngi soññ ñëpp nag si Cheikh Jëm Fall nee na mu ngi soñu julli yi ak Baye Fall yeeg murid yi fooy mën ne ak ci réew mi ak bitim réew lu ci waaye man bu mu ko xeeb na ñëw indi ko ci mbaam ñoo ñëw jëf si ndax kat dégg du ci jëriñ dara jëf rek ci jëriñ aw ñam moom dee xeeñ te lekkoo ca ah bu la fekkee xiif gaañ rek lekk ga rek moo la lekk ga nag mooy jëf ji kon nag sëñ bi nee na mu ngi yéene lii ñëpp te di nag góor jigéen mag ndaw fooy mën a ne na nga ñëw wuyu si liggéey bi te jërëjëf ñu si kon nag sëñ Badara ndigal laa ngi nii yàgg sëñ Mamour sëñ baa ngi koy yaatalu di ko soññeelu di ko yëglalu di ñaan sa borom nag suñu àll yi coon ngal doole mi nga xam ne moom la yebal si te ngeen nekk moom rajo bi ñu tudd seen maam ji muy Serigne Fall mi ngi doolee ñaanal daraja yi sëñ Tuubaa ak liggéey bii rajo bi fu mu bëgg mu àgg fa yàlla na ko Serigne Fall àggale liggéey bi itam mu ñaan sa borom jàppale leen ba lim ci yéene di ngeen bokkoo moom ngeen man ko ba sama defal seen yi bopp yoo xam nag da yaatu loolu ne gaa ngi liggéey seen Tuubaa jërë ngeen jëf nag bu fi sama jóor nekkoon du ma wax waaye dañ ko dañ ko yónnee Tuubaa muy sëñ Mor Moussa daa dem Tuubaa léegi seeti ci yi la jël la jëli ma la toppatoo ji kon nag ndigal laa ngi noonu na ko ñëpp jàpp rek jërë ngeen jëf dañuy sant yàlla bu baax ci barke Serigne Touba bi nga xamante ni li Serigne Touba bëgg am na wante it li nga xamante ni moom la askan wi muy ndaw ñi doon jooyit saafara woon lépp ci barke Sëñ Tuuba jërë ngeen jëf mbokki jullit yi jërëjëf mbokki taalibe yi lii leen leen euh, jëlale woon kon ci liggéey bu tedd bii nga xamante ni ma euh, Cheikh Mouha Cheikh Mouhamadul Muntaqa moom Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jox na ko. Serigne Cheikh Jëmb Fall mi toog jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall di euh, barab bii nga xamante ni euh, ab stade la woon fii si Mbacke stade du Mbacke bi ngir nag ñu daal di koy soppi def ko kër Serigne Touba Khadim Rasoul boo xamante ni dégg ngeen jëwriñ yi. ñi nga xamante moom lañ si leeral ak li war a am ci liggéey bi yëpp kon nag liggéey bi moom du liggéey bu ndaw waaye mbooleem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi takku nañ ngir jëfe ndigal li kon ndigal yi ko jiitu sëñ Mamour Ndao Baye Fall ndax nag xam ngeen ni kon dina am ab juma niñ ko waxee am ab institut islamique am ay dalluwaayu kilifa fii di comme nuñ ko mën a waxee rek Mbàkke am kër Serigne Touba Khadim Rasoul si nag njiitalu Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na yàgg a toog jotaay Serigne Touba Khadim Rasoul te sunu borom may ko mu yàgg fi loolu te ànd ak dégg ngeen kàddu yi maire bu mbakke ni mu ko leeralee noonu waaye it dégg ngeen eh, li nga xamante ni mooy soññee bi am solo bi nga xamante ni eh, sëñ Baara Baye Baara Mbodj soññee na ko si liggéey bi kon woo nañ képp kuy Baye Fall xam ni liggéey bi moom liggéeyu doole la ak liggéeyu alal ndax lii miire stade bi yaakaar naa ni toog di wax kese du ko def waaye nag eh, yónnee ci yónneekaay yi say ñaq fu waay mën di nekk si biir réew mi ak si biti réew yi kon ñu ngi leen di séntu si liggéey boobu waaye te ni ko Baye Moustapha Seck waxee ab Baye Fall moom buñ la woowee si liggéey aajawul ne da ngay ñëw rek daal di barkeelu yaakaar naa ne ni nga war a def mooy joxe sa maanaam uh, uh, ànd ak liggéey bi ba keroog ngay dégg jaajëf waaw mu yeewee bi waaye te jaajëfal bu baax uh, Serigne Moustapha silla si kàddu yi am solo yi di si yaakaar bu baax a baax nag Serigne Falloum Serigne Mourante. di ko ziar bu baax si kaddu yi nga xamante ni ah, baaxee nañu ko mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi kon ah, takku nañ ngir nag jëfe ndigal lii nga xamante ni jox nañ ko ku fi maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Cheikh Fall jëm sëñ Mamour li ma gën a marke si liggéey bu tedd bi mooy maanaam euh, euh, da nga fiy gis sax tout tànk boo xamante ni daanaka mun nañu wax ni day jàng wax wala muy jàng dox li mu tollool ñu koy jox nga xamante ni góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp fi daje. waaye soo xoolee si image yi li si gën a yéeme mooy col gu yiw rek nga siy gis muy ci góor ñi di si jigéen ñi maanaam li ñuy wax tubayu jàmbur sax doo ko fa gis dina sol yu jot takk seen yu ndigg ngir nag liggéey liggéey bi nu mu gën a sellee waaye liggéey bi nag bokk sekk bakkub Cheikh Ibrahima Fall ngir nag jàmbaar ca waar wa ni ko sama baay bi defee sànq mu doon lu am solo bakk yi nga xam ne ñu ngi leen di bakk ngir gën leen a yokku eh, kii ànd kaak xaq laa ilaha illallah loolu moom moom lañu ñu xamee Baye Fall kon nag euh, sëñ Mamour euh, liñ fi jëlee yëpp mu ngi noonu ana nag ko ci jàngatee euh, ci liggéey bu tedd bi seen émission Jazboul Mouride gannaaw nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu demoon ci réew yu sori yi ngir lépp ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall gi kon ñi nga xamante ni ñoo nekk si biti ñu ngi leen ci wow bu baax a baax xam ni mbir mi moom jëf jël képp la Euh, jërëjëf sëñ Alim ñoo ñu ngay woo nag ñoom lañ ko séqal ndax ko ne xam na ne sëñ bi bu taylee boppam e, mboolem taalibe yi ñoom ñoo ko war a jot te niñ koy jotee moom mooy li tax sëñ bi tayle fi boppam mooy liggéey bi ndax sëñ bi kat buñ koy sant donga yee tax euh, ndax donga yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne bii lañ diggee woon ak sëriñ bi saa su nekk duñ denc di ca teg seen tànk guddi ak bëccëg suba ngoon xam ngeen ne boo génnee ci bitim réew rek xam ne murid yi jàmbaar lañ lool ndax defe naa ne leneen ba foofu muy addiya ak njël lépp luñ am lu ne danañ fexe ba euh, tàkk ko jox sëñ bi ngir mu def ko ci liggéeyam Serigne Touba Cheikhoul Khadim kon mboolem fédération yi nga xamante ni bii ñoo wër àdduna bépp nag fu mu ne fu ñu nekk rek moo xam Amérique moo xam Asie moo xam fu mu mën a nekk Afrique Europe fépp rek fédération yi Serigne baa ngi di soññ ñu dajale li nga xamante ne bii mooy addi yi jëm ci liggéey bu tedd bii nga xam ne sëñ bi li mu fi bëgg euh, ab li ma koy def te lim boob itam sëñ bi kim ci yaakaar mooy donga yi nga xam ne ñoo aju jox ko seen bopp daal di koy noppal la sëñ tu Cheikh sëñ Tuubaa Cheikh Fall waxoon féetale yàlla yow mi xam yàlla ma féetee man mi la xam nekkal ci kër gi mën na ci naaj bi kon bu sëñ bi taylee boppam ñun ñoo tax kon ñun faw rek ñu mën a ñun itam am lu ñu waajal ngir bàyyi xel sëriñ bi li nga xamante ne bii mooy yéeneem ci sëriñ Touba mu mën koo jëf te mooy li ko sëriñ Touba sant te loolu kenn waruñ cee jut ñun ñëpp te murid yi fi jël kàddu wax nañ ko ñoom ñëpp xam la nañ liggéey bi liggéeyu poos la liggéeyu poos la donte ne am na liggéeyu doole mason yaa ngi ci mooleur yaa ngi fi yëpp a ngi fi waaye nag am na ñooñ mënuñu ñàkk dem ngir taxañ dara ngir ñëw euh, kon a xam na ne euh, njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall am nga xam ñoo xam ne moom foofu lañ ne seen yéene mooy bu ñuy tax xeer yi ñu am ay tonni ciment yu bëri yuñ sëriñ bi wala ab lim ci xaalis bu ñu jóoral sëñ bi moo tax am na ci ñooñ moom daw nañ fi ne daal di foro ji ndax yéene nañ bu sëriñ bi ñëwee te xeer wi ñu jébbale waale seen yi ji nga xamante ni bii moom la ñuy tàbbal ci biir liggéey bi lool nag ñi ngi ñaan yàlla suñ borom defal leen kàttan ba ñu def ko ndax am nañ yéene jàppale sëriñ Cheikh jëmb ci liggéey bi ndax sëriñ Cheikh jëmb kat wax dëgg koo xam ne dama sëriñ Thierno Mbacke Longal waxoon ne na ma man ko xamoon démb xam ko tey bi fi Cheikh ne xam naa ne lii am lii mu lii lii jomb ko woon moom ku ñaan ñàkk nag signal yi boo jëndee am te sëñ Cheikh jëmm daa jënd nee na am naa ci Moustapha Fall loo xam ne ku ma fekku naaj moo de barke Cheikh Ibrahima waaw liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall rek la yóbbu Paris moo ñu yóbbu puut yóbbu ñu feneen am na ko jógee ca glace ga ñu naan eh, seere dégg rek de deux degré rek yu mel noona nga xam da ngay mën a dox di tibb ci glace gi tey nga ne fii ci naaju jant bi tàmp sa bopp ba sa karaw bopp yi lakk nga xam ne sëñ bi kenn xamul lu doon waaye loolu lépp nag sëñ euh, Cheikh Ibra Fall rek a tax Cheikh Ibra Fall fu ñu dem ci àddina moo ñu fa yóbbu ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla fayal liggéey bi yaatu lool ba law fépp Serigne a baax nag yéene ji rek ak pas-pas bi mooy eh, niñ koy defee bitim réew di ko defee fépp ci àddina si rek ñu defe ko fii nag mooy lépp loo xam ne rek dal na ci kaw njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di ndigal ñu fexe ba eh, mbokki taalibe yi topp Jazboul Mouride di topp seen télévision Lamp Fall am cofeel ak yéene ci suñu jëmm yi ñu fexe ba nag lañ diggee woon ak yéen ñu ko te mooy lépp loo xam ne Cheikh Fall joxañ na ko rek Ken kenn duñu fa ñëk loolu lañu yéene ndax lëg mom boko sané ci lay défar nga affaire am té Cheikh ibrahim nee ko amul lu lenn dañ ko ci barap bo fa dégg yox kenn warul faa jëre jëf Serigne mamou ndaw Baye Fall jëre ngeen jëf mbokki talibé yi ñu doon uh, top inshallah allah lañ ko fas yéenee ànd ak yeen ci liggéey bu reuy bi nga xamanteni ni uh, Serigne Touba uh, Cheikh Mouhamadul mundaqa mu Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na fi yag loolu tànd ak wër moko jox mam Cheikh ibrahim Fall Serigne Cheikh Fall jëmb fi yag loolu ak wër inshallah li fek nak. ñuy dem ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si rakaati gàmm bis bi nga xamante ni si la sëñ bi fas yéenee teg xeer wi incha allah lii lañ leen indiloon dinañ àndaat ak yéen ci tegum xeer wi bu ñu neppee fi liggéey bi toll incha allah dinañ ko ànd ak yéen jaajëfal bu baax a baax nag El Hadji Fallou Sil du ñu noppi di ko jaajëfal sunu caméraman yàlla ko sunu borom defal tawféex seen télévision Lamp Fall yabaloon ñu fi. Serigne Alioune Thioune yàlla na sunu borom yokki xéewalam ci liggéey bu rëy bii nga xamante ne mu ngi koy defal maam Cheikh Ibrahima Fall di ko defal Serigne Touba Khadim Rasoul tàmbalee si Serigne Touba yem si Serigne jox leen daje incha allah si beneen reportage si Mbacke Xewar sëñ Mamour Ndaw Baye Fall fii nga xamante ni kon mooy kër Serigne Touba Khadim Rasoul biñ fi war a defar wa axiru daawaanaa ne alhamdulilahi rabbil alamin